rahmatullah yen bokki auditeurs yi noo ngi len di ziar nuy bi gëna sel di len fekk fa ngeen top ci euh di len nuyu ci turu radio khassid online niñ koy defé dimanche bu jot ci waxtu yi fasiyene len dictel sen sen émission diaspora ngeen ci ànd ak Demba ja fi ci Pontedera ci xarale bi sëriñ moo du Mbaye Thiam Baye Fall ci geneen wàll wi sëriñ Pape Mokhtar Tall ñuy ziar ñëpp nag di jiital ci ziar bi suñu xalifa suñu yaakaar teeg ëllëg sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di ziar mbooleem xalifa yi sëriñ Tuubaay di ziarit waa kër sëriñ Fàllu di ci jiital sëriñ Abu Baraka tey jii ñépp xam nañ ni moo di bésu Kazu Rajab eh, nekk eh, bés bu am solo ci yoonu murit eh, waxtu wi daan na fekk Tuuba tey jii fees del barabu sëñ Fàllu ba fees waaye xew-xewu àdduna tax na ba sëñ bi joxe ndigal euh, mu mel ni kenn wàccul ndigal boobu ndax mbokki taalibe yëpp ku ci nekk fa nga nekk yaa ngi fay yëngatu nun de léegi lañu tëj kaamil yi ñu doon jàng di waxtaan ci daayira virtuelle bi ndax léegi mën nañ ni daayira virtuelle lañu am euh, te defe naa ni Euh, képp kuy murit noonu boo ko defee tey jii image yi ñuy wane Touba doon image yu xaw a doy waar waaye nag sant yàlla loolu dafay wane rek taalu taalibe murit maanaam ni mu toll ci ndigal euh, murit moom buñ ko nee jëfe nangam rek euh, da koy jëfe te du ci am xel ñaar kon ñi ngi sant mbooleem eh, mbokki taalibe yi rawatina nag waa kër Sëriñ fal di ziar ñi bokk ci bunt ci ci ci bunt boobu yëpp di ci ziar nag plus particulièrement sunu sëriñ fii sunu jëriñ sëriñ Cheikh ndi Ndindi ibnu sëriñ Baara eh, bokk eh, di kenn ci ñun fii ci waa Toscana mun naa ni daanaka moo di jëwriñu daayira bi kon mune ne suta ziar waa kër Sëriñ Fàllu eh, te ziaroo la ko waaye it di ziar ñi nga xam ni ñoom lañu ñu rajo bi Sëriñ Mouhamadan Mbàkke buñ ko tuddee rek eh, bool ci sëñ Ibrahima mel na ni tudd ñëpp eh, fas yéene tey jii ñëwaat ak yéen di le 22 mars 2020 Eh, ñu fasiyene delu ci wat tegi ak yeen tay ji ci xew-xewu diaspora xana rek damay jox seigne pap Mokhtar eh, mu dugg nuyu len buñu paré nak dogu bi tomb bi pap bismillah jere jeuf seigne pap auzu billahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sangu-sang yi ngi lay nuyu seigne pap di nuyu bu baax sunu technicien Modou Mbaye cham di jital ci kàddu yi nak sunu wasila euh, di sëñ Muntaxa Bachir di serigne Touba ci suuf di ko ñaanal yalla mu yàgg fi lool ta and ak wir di nuyu yit bépp kilifa diine ak kilifa aada di jël nuyu di ko teg ci euh di nuyu sama buntu ci Serigne Touba di Serigne Saliou Mbacke Darou Salam di ko ñaanal yalla momit mu yàgg fi lool and ak wir di nuyu suñu mbokk auditeur yépp euh, di ziar ak màggal bu baax baax sunu jëwri ñi nga xam ni ñoo ngi nekk ci rajo bi di sëñ ibrahima ak sëñ mahmadan di teg nuyoo bi ci seen loxo rek euh, di jéggalu bu baax ak euh, baalu àq ci weer wu sell wi di ziar it sëñ abo mbàkke ci kasu rajab Eh, di ko ñaanal moom it mu yàgg fi loolu ànd ak wér eh, di ziar ak barkeelu bu baax a baax ci bépp fàllu rek ak foo mënti ne di ci jiiteel sama benn bii ma yor fii ci kër gi bay eh, boo ni tey daa gi sax daanaka moo ko jiitu moo ko jiitee di leen ziar ak bu baax a baax di leen ndokkeel du tànk fàllu yi yàlla def leen mag leen magum diine Eh, xanaa di xaw a gàttal nuyoo bi rek bu ko defee ñu dugg ci ci waxtaan wi waaye sëñ Pape bëggoon naa it eh, jaale le monde du journalisme eh, di su seen di naataango yi don ku amoon xarañ ci li ma doon def di Modou Ndiaye Dos ñu yëg ni man bu ma ni sax yaa ma ko yëgal Eh, ndax ne na mu accès rek noonu nga ma nga ma joxe information bi di ko jaale ñëpp di ko jaal njaboot gi di masawu njabootam eh, ñaan yàlla suñu borom it eh, mu xaare ko aljana firdawsi xanaa sëñ pap delloo wala kàddu gi rek ñu jublu ci allah. waaw jërëjëf sëñ pap mooy dëgg la wax nga dëgg de sëriñ Mouhamed Ndiaye Doos wax nga dëgg bi ñuy réunion man ak yow. Mm-hmm. ñu gis breaking news bi. Mhm. daanaka ni ma kiiwee rek noonu laa ko déggee manit ñu ñu partagé ko ensemble mhm. mu nekkoon mbokk moo xam ne daanaka daan na waxtaan lu bari ci diaspora bokkoon na sax ku daan def ay émission ci diaspora bi mhm. euh, di lu xaw a bette ñu koy ñaanal di ko ziar mboolem ñi nga xam ni ñoo nekk ci métier journaliste bi Mm-hmm. ndax nag ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo ñàkk vraiment. Mm-hmm. Euh, di di ko ziar ñëpp di ziarit mbokk yi nga xam ni daanaka ñoom ñoo ñuy bàyyi xel saa su euh, di fàttali auditeurs yi rek ni yéen ngi déglu seen émission diaspora seen mbokkum taalibe Pape Mokhtar Tall ak Pape Demba Dia fii ci Pontedera. ñu del ci wat rek jamono yi mom jafe na génn euh wax ci leneen lu dul defe naa ni xew ko bi nga xamni mo xew euh nek euh daanaka mën na ni événement planétaire la ndax li ñi wax rek wote wote sunu borom rek a wóor Eh, ndax yàlla moom bu soxlaa ñëpp ñëpp ñëpp ji image yi ñuy wane ci àdduna bi image yu yéeme la ndax defe naa ni eh, jamono ji eh, du kenn ku ci dara Amérique France Espagne àdduna bi yëpp ba Màkka maanaam amatul fenn foo xam ni Afrique nit ñi ñi ngi def lenn di wax wala ñuy wax lenn lu dul nu ñuy def ba mucc ci corona bi mu di virus bi euh, ndax nekk na virus boo xam ni moom ni muy ni muy tukkee gaaw na xam naa ni moom ñàkkul xëy na ci Facebook bi lay jaar wala wala wala ci beneen moyen ndax euh, ni muy dawee daal gaaw na lool ni muy jege frontière yi yéeme na xam naa ni eh, eh, conservateur yi wax seen dëkk eh, prima ñoom xeetu ñoom Salvini yi foofu moom defe naa ni seen politique daanu na tey jii nekk enésimo giorno boo xam ni ñu tàmm ko def bu 18 heures jotee ndeysaan fii nga xam ni ci Italie protection civile dafay def conférence de presse génnee données yi nga xam ni moy données journalières yi ajourné euh, ajourné à nga li nga xamni di euh, modi modi euh, chiffres yi mu wax ay ay presque 53 578 yu ñu firndeel la teg ci seen loxo di ko suivre loolu euh, euh, signifiewul ni ñooñu rek ñoo ko fi am ndax euh, léeg-léeg nit am ko te du ñu egsi ci moom ñu toll ci ñi faatu quatre mille huit cent vingt sept décès tey jii rek defe naa six cent cinquante et un décès moo am loolu nekk lu yéeme daanaka Italie dem na ba nga xam ni léegi bokk na ci ñi nga xam ni ñooy premier pays au monde bu ëpp ñu faatu euh, loolu nag euh, euh, tax na vraiment àdduna bi yëpp ñu ngi koy jàppale ndax nag wax dëgg fa yàlla gest de solidarité bi bari na chinois yi cubains yi russi ñi am doole ci àdduna bi yëpp ak ñi xarañ ci wàllu faj yëpp ñu ngi daw si pour ñëw fii euh, ndax li waral loolu mooy euh, euh, looy faj loo amagul garab gi moom du neex faj looloo tax toujours slogan bi nit ñi di wax nit ñi toog leen seen kër mu nekk li gën a wóor ndax tey jii boo xoolee démb ci guddi. Euh, gouvernement Italie defaat nañu beneen décret xëy dinañ ci waxtaan sax yaatalaat ko dolli ko ci décreto Cura Italia bi nga xam ni dafa déclaré woon Italie yëpp zone rouge waaye décret bi dafa déclarer par exemple arrêté <coughs> lépp luy activité économique boo xam ni luy laal secteur stratégique yi nga xam ni ñoo nekk ci wàllu santé ak li nga xam ni mooy dundal doomu aadama kon mu melni euh suba di altine tay ji sax la tambali ndax légui bloc totalé lañu def euh dem nañ ba nga xamni ni nit mënatul joggé communeum di dem commune jambour kon mu melni ni tej nañ ñu ci suñu commune euh lolu nak tay ji bëgg nañ ci am ay njangat wayit euh ñu fasiyene amat ay njangat ci eh, jàngoro ji ni muy lawee tam Sénégal ndax mu ne su dee ñàkk a wax ndax it daanaka ñun immigré moom lu ñu nekk fii lu ñu dund dund jafe-jafe mën naa ni suñuy jafe-jafe méttiwuñu eh, daanaka sunu mbokk yi nekk Sénégal la ñuy gën a bàyyi xel sax que ñun suñu bopp dañuy gis sax fii ku feebar day liggéey di yónnee ay mbokkam Sénégal loolu dinaa ci taxaw tuuti ndax boo dégloo semaine bii passé ba ba tey jii sax euh, immigré italien yi euh, daanaka léegi nekk nañu source de stigmatisation maanaam euh, ñi dëkk itali jóge Sénégalais yi jóge itali dañ leen tuddee ñi nga xam ni ñoo yore feebar bi ba sax boo xoolee parce que loolu erreur la bu er suñu erreur de communication la bu suñu état def ba tey sax ñi ngi koy defaat ndax tey jii boo xoolee onze cas yi ñi ngi wax euh, ñi ngi bu ñuy wax dañuy wax un cas importé ak des cas communautaires maanaam kaa boo xam ni ki ko fi indi bitim réew la jóge te bitim réew daanaka buñ koy wax euh, sénégalais yi moom li njëkk a dégg rek loolu la ñuy jàpp moo yi jóge Italie ñoo ñoo yor jàngoro ji Euh, dem nañ sax ba benn kilifa ci ñoom euh, wax ci organ de presse di wax ni boo leen déggee Modou bu ñëw te yëgluwul boole leen ko xam nga loolu dafa nekk lu yéeme ci ci ci dëkk mën na sax tasab réew ndax daanaka loolu day wane ni euh, day wax ni maanaam ñi ñëw dañoo yore jàngoro bi donte jamono ji yaakaar naa ni ñi ñi ñi ñi dugg Sénégal ñëpp dafa nekk ñi nga xam ni xëy na euh, mooy ñi départoon avant ñu tëj frontières yi léegi yaakaar naa ni nit dootul départ euh, fii di jaar ci yoonu suuf yooyu jël nañ ci waxtaan tam waaye rek euh, li ñu bëgg a waxtaan tey mu di situation bi nga xam ni mooy wàllu liggéey fii sénégale yi ban taxawaay la ñu war a am surtout ci wàllu risques yi nga xam ni moom la ñuy rencontrer ndax gis nañ ni jamono ji euh, virus bi lu ci bari ñi ñi ñi am mobilité ñoo koy wàllante te mobilité bi boo ko xoolee su weesoo ñi nekk ci secteur de santé bi maa ngi siyaar bu baax ñoom soxna Mariam euh, ñeneen wàll bi mooy liggéeykat yi sëñ Pape daal tey jii xam naa ni yaatu na waaye euh, ñu koy def benn par benn rek di ci def tomb ndax liggéeykatu italien yi fii bari na luñu ay njaqare yi ñu am ci naka la ñuy war a mun a seen kër ak ci condition ak euh, ban càngaay la leen état di càng ci wàllu ci wàllu droit ba nga xam ni bu ñu seen kër du am du am jafe-jafe sëñ paap ma joxaat la kaddu gi waaw jërëjëf sëñ paap euh, njàngat bi macha allah euh, am naa yaakaar ni ku doon laam-laamee tay ji di nga ja di nga di nga di nga di nga japp sa njàmbur wala nga nëbbatu sax nak ndax eh, fofu euh hmm. ndax li li ñu gis bu ñu démé ba nga xamanteni ni ñu ngi ñu ngi xol ba xam ndax décret yi nga xamni gouvernement bi def nako ma ngay am effet wala ma ngay commencer am effet wala ñak am effet ci nit ñi nga xamanteni ñoo ngi faatu ci li lembe jamono Euh, yaakaar naa ni ñi doon laam-laamee war nañu wax gëstuwaat xoolaat seen bopp tuuti euh, bi ci topp nag mooy ku xool e maanaam dëkk bi koom-koom bi fi mu toll gis ni dëgg dañu nekk entre guillemets en période de guerre bu ñuy wax guerre nag guerre du ay bomb rek nit ñi bu yaakaar ni guerre li c'est une troisième guerre mondiale les gens il faut que ñu yewu ci lolu neexul dégg nak parce que ñun fekkewuñu deuxième guerre mondiale wuñu trois euh, première guerre mondiale ndax boba moyen yooyu mo mo amone mais ci digënté bi technologie bi dafa dox ba nga xamanteni expert yi ak recherche bi dafa dox ba nga xamanteni science dafa avancer ba nga xamanteni jéggina jéggi dayo tubaab yi gëstu nañu gëstu gëstu ñoo chinois yeeg japonais yeeg coréens yeeg ñeneen ak ñeneen gëstu nañoo gëstu gëstu gëstu ba la gëstu sax dafay dem ba di leen jaaxal kenn ku ci nekk di xëccoo maa koy mën kii na euh, la koy saafara maa ko yore loolu nag su demee ba am faw mu am fu mu fu mu mu xotti ko faw am euh, ay ay pëccëxoo ak ay xëccoo ci wàllu économie ci wàllu koom ci foofu nag ñun foofu la ñu toll malheureusement innocent yi ñooy ëpp ñu ci ñu ciy bàyyi seeni bakkan ndax guerre ca boppam ña ca daan dem sax mooy innocent ya nga xamante ni ñoom la ñu daan jox mëq doom ne leen dem leen waaye patron ya ci bureau yi lañ daan toog di joxe ay ordre fu ñuy war a dem ak fu ñu warta dem innocent yooyu mooy ñun tey jii innocent yooyu mooy liggéeykat yi nekk ci sur le champ

non seulement def nañu protocole pour jéem euh am benn taxaway bo xamanteni ni kat yi dinañ len ko jox ci disposition yi ci euh, distance un mètre yi ci euh, masque yi ci lenen ak lenen ak lenen waye gis nañ ni mbir mi dafa gëna yok yokk motax syndicat yi dem pour wax gouvernement bi ne len xamal len ni amna ay production yo xamanteni ni c'est des produits non essentiels produit la yoo xamante ni amul njariñ te am na société yoo xam ne dañoo ubbi ba léegi te grande partie ci ñoom seen produit yëpp euh, quatre-vingt pour cent extérieur lañ ko daan yóbbu te tey ngal la ngalla mënatuñoo yóbbu extérieur ngalla nañu tëj reportage bi ñu defoon ci Amazon maa ñi def publicité gratis sax nag reportage bi ñu defoon ci Amazon ñu gis nañuy liggéeyee na ñuy jegantee ak na na ñuy rombante na ñuy saafontee te kenn takku ci masque kenn takku ci benn dispositif mais loolu ku mu tiitalul vraiment te kooku liggéeykat ba bu jógee foofu day dem ca Mensa ba bu jógee foofu day dem këram day duggu otoom day dem këram day nekk ak njabootam donc contamination boobu te it njàng ñi ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci virus ak ak yooyu li ñuy jàng ci la ñuy wax ñoom ñu xamal ni ñu virus bi bu toogee fa mu toog dal ci nit nit kooku moom moo koy yóbbu di ko di ko joxe mais du virus moo yor tànkam di dem kon bu ñu eggee ci benn euh, nombre de contaminés de positivité mu yokk loolu vraiment nit ñi war a dañoo war a euh, euh, non seulement tok ci bir kër yi parce que boo xoolee dénoncé yi nga xamanteni euh, police carabinieri et cetera def nañ ko par rapport ak euh, ces gens là yi nga xamanteni dañuy nekk ci mbedd mi di taxawaalu wala ñu naan dañuy dañuy footing dañuy dawi dañuy def leen ak leneen mo ëpp fouf le nombre de malades kon y a quelque chose qui ne va pas mais Poutine lan la def Poutine dafa ni ñaar mo fi am au tok ci kër gi oo bo génné di taxawaalu cinq ans de prison mais dëkk ba ñëpp a toog ci kër yi ñëpp toog ci kër yi Angleterre bi bi muy eh, feebar bi ba ñu def seen concert boobu ñu defoon noonu def ay partita di calcio def yeneen ak yeneen ñoom ñu ne non eh, tollooguñu foo xamante ni war nañu mën a arrêté nangam ak nangam mais yëf yi bi muy bi muy dugg foofu bay ravager jamono bu italie di tollu ci jafé jafé dëgg deug deug deug deug ya une semaine de cela angleterre bo fa takkee mascara dañ lay rétane dañ lay rétane c'est un reportage bo xamanteni les italiens yi nek en angleterre néna ñom ñoom také masque ra en direct lañ ko doon wax buñu také masque ra dañ leen doon rétane même pas 10 jours limay wax ni nonu nak lako italie sagane won ba muy yem chine càggante googu nag moom moo ñu indil xëy na nombre bu yaatu bii parce que waajaluñu ko ndax loo xamante ni day law doo ko gis te lawam gaaw na loolu te nit ki mën na koo am te doo ko xam du feeñ ci moom kon ngalla ñun euh, cër biñ ci am mooy sunu réew yee nga xamante ni seen doole matalewu ko ndax Italie gën gaa gàtt li mu am ci doole ci santé yamul fii Sénégal ñu waxante dëkk kon kaa yu tuuti yooyu ñoo ca am di ñaan yàlla mu saafara ko nañu teel a jël sunu ay matuwaay rawatina nag ñuy jël di def benn court-circuit médiatique boo xamante ni stigmatisation bu doy waar parce que communication bi ñuy def nii c'est une communication tendancieuse communication bu bon booy dem bay wax naan euh, euh, contamination exportée wa ila commu euh, contamination communautaire yaa ngi séddale waa Sénégal ak waa bitim réew booba yaa ngi réeree mbir la nga xamante ni moom la immigré yi daan def booba yaa ngi fàtte ni que fa njëkk indi virus bi du sax moodu moodu ab français la ca boppam booba yaa ngay fàtte loolu te dama yaakaar ni ñun toll nañu moment boo xamante ni am na yenn niveau yi dañ ko war a bàyyi dañ ko war a arrêté dañ ko war a arrêté fa ñuy toll mooy naka la ñuy mën a Euh, dooleelee suñu système sanitaire ba nga xamante ni lépp lu ñëw dal seen kaw rek ñoom ñu ñoom ñoom ñu ñu fexe nuñ ko daane ci jumtuwaay euh, ci ay tampon ci ay masque ci leneen ak leneen ndax Sénégal nekk na un point stratégique boo xamante ni jamono yi bu ñu tëjee frontières yi su masque amul c'est un désastre c'est un désastre ndagam Italie moo toll période boo xamante ni amuñu masque masam ak Sénégal bu ñu bu tolloo foofu parce que kenn produire wu ko fa dañ koy importer kon jàpp naa ni c'est pas le moment takk cravate wala leneen ak leneen c'est pas le moment nit di fa jaay mbu mu rëy c'est pas moment nit di am lu muy revendiquer politiquement wala leneen ak leneen c'est le moment d'unité nationale ñëpp àndandoo. ñu bokk daan lii ñuy li nga xamante ni moom moo ñu jaaxal ñu ñëpp te ku nekk ngay wax naan lii mooy vaccin ba wala leneen mooy vaccin ba et beneen particularité bi nga xamante ni bëggoon naa ci taxaw tuuti gouvernement bi njëkkoon na génnee benn auto-certification ne ba mu seetloo ni que ni nit ñi tooguñu seen kër mu waat beneen am na ay sénégalais yu ñu ci nangu seen oto. am na ay sénégalais yu ñu ci nangu seeni patente am na ay sénégalais yu ñu ci jàpp bindal leen verbal te verbal yooyu ñu leen di bindal kenn ci ñoom gisagul koo xamante ni buñ la bindalee verbal dañ ciy def chiffre déedéet defuñu ci chiffre verbal boobu dénonce la yow dénonce la contre yow ci acte bi nga def donc sénégalais yi ñu def attention bu baax a baax a baax a baax ci loolu te it bu ñu la arrêté lañu lay njëkk laaj bu ñu ba lay bindal verbal lañu lay njëkk laaj ndax am nga avocat mais sëñ bi fan lañu mësé gis police vigili carabinieri nga def infraction ñu arrêté la bindal le verbal ba nopi dila la laaj ndax am nga avocat damay waxtaan ak suñu ben avocat bu nekk Bologne mune ma téléphonate yi mi jot yépp ay immigré kese

parce que lañu la wax ak li nga déclaré yow ci ci ci verbal boobu nga compilaré bokkul ça fait deux rawatina nag rawatina nag à partir de demain wala à partir de tey ci guddi gi ak euh, accord yi nga xamante ni Conté def na ko ak euh, syndicat yi ak décret bii mu war a publier intro mercredi parce que décret bi xëy na musli taare fii ba mercredi sa commune sax mënootoo mënootoo faa dem mooy li wax sànq. génn sa commune mënatuloo ko nit ñi nag am na ñuy laam-laamee ci yeneen situation mais alhamdulilah bi ñu gisee que ni vraiment chiffre yi xaw na kalaare wu tuuti parce que am na leggero kaalo leggero kaalo boobu nag moom mooy xëy na effet décret bii passé xëy na moom mooy commencé feeñ nii dama gëm nii xëy na dañu egg ci pic bi moom moo tax muy commencé di kalaare nii décret bi di commencé di def effet Euh, décret bi nga xamante ni Conte war na ko publier dans la semaine bari na ci ñun ñoo xamante ni dañuy liggéey ci société yoo xamante ni dañuy def ay produits non essentiels yi ñii ay ay ay ay pictore lañu carrosserie et cetera ak yeneen ak yeneen alors euh, sénégalais boo xamante ni wax dëgg yàlla sa xel dalul sa xel dalul parce que mit bi nga xamante ni ñu ngi ko daan def naan ay dana dal sénégalais du ko dal ay ñun dañoo am ay anticorps yi ñun dañoo nii ñun dañoo naa nañ ko jël teg ko fële lii ñëpp lay dal ñëpp lay dal amul nit ku ñuul ak nit ku zone ak nit ku bële ñoo ci yam ñëpp lay dal léegi nag ndax man am na ay anticorps wala man am naa awma ay anticorps man xawma la ma ca mëna xam dal te mën ko def te mu leer ma ma mën ci tek sama loxo moy ne ko mën naa jël samay way moy tok sama kër suma ma ba liggéey dalatul sama xel ma téléphoné sama médecin jox nañ la sax possibilité bo xamanteni bo soxla garab amna euh certificat rosso bi nga xamanteni mën nga ko compiler dem jënd garab ñu tok nga jël sa malade ya tok sa kër c'est pas un moment bo xamanteni bo boo ce que dañ lay dakh ken dakh ken ken amul fitu dakh ken moment bi mag nak lu dal xelam moy likoy may yaram parce que boy xol ci fabrique yi pratiquement immigré yi rek ñoo ci nek man defna sondage fan yi defna sondage ba côté Vénétien waxtaan na ci ak le professeur Simal biñ ciy waxtaan moom dafa ni ma est ce que pap xam nga ni effectivement même ñun suñu fabrique immigré rek ñoo fa nekk tubaab yëpp toog nañ seen kër jël nañ malatia donc ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo am xëy na dañ naan ah, ah, dañoo jàpp ne xëy na yëfi duñu laal wala ñu jàpp ne ah xëy na liggéey bi moom mooy tane toog ci biir kër gi nañu jël précaution yi tegu ci anam yi nga xamante ni moom lañ ñu teg te ñu xam ni gouvernement bi ya teg na des mesures yoo xamante ni permettre na agenda bi mu dem ci casse intégration yi utiliser amortisateurs yi am na ay ngëneel yoo xamante ni teg na ko pour koo xamante ni da nga am mën nga utiliser benn instrument pour bu la permettre pour nga mën a toog sa kër donte nag boo toogee sa kër amaana xëy na la nga doon am cent pour cent duñ la ko jox cent cent danañ la ko dimet zaareel waaye xëy na toog sa kër moom mooy tane ci yow te mooy gën a dal sa xel muy agricole yi ñiy liggéey ci tool yi déjà Italie dafa am beneen problème foofu parce que piantumazione bi mooy période bi nga xamante ni dañ koo war a ji période bii nga xam ni yi dañoo war a ji italiens yi gis ñu sax immigré yoo xamante ni ñu war nañoo ñëw ànd ak ñoom ci liggéey tubaab yi ànd ak ñoom ci liggéey ci liggéeyu euh, njimeek yooyu parce que immigré dañu ragal te gisunu ben ben ben djégué wayo wala ben tutee la boo xamante ñu ngi leen koy defal ñi nga xamanteni nak am nañu dom ju am 0 ba 12 ans am ngeen possibilité def congedo pour 15 jours congedo boo bo xamanteni dina la permettre non seulement nga tok ci bir kër bi mais dana am luñ la fay lo xamanteni 50% euh, aux cent rétribution bi ngay am la euh, instant bi man dama don wax sax ni est-ce qu'il est le moment pour que euh, vraiment nga ñu ñu fori fóori ngëneel c'est vrai le droit de l'information liggéeykat yi dañ ko am il faut que nga informer leen mais nañu def attention aussi par rapport ak demande yi nga xamanteni ñu koy def parce que nit ñi dégg nañu ay 600 euro, ndax ñun fu ñu dégg euro rek wala bonus rek dañuy daw di tëñëx tëñëxi yaakar ni nonu lañ koy joxé gratuitement fii kenn mayewul kenn joxewul dara gratuitement il faut que nit ñi sénégalais yi def attention ci yoyu parce que mëno dem nga né da ngay déposer bonus babysitter ba noppi te yow yoruloo babysitter boobu boo xamante ni mi ngi ci biir kër gi te nañu def attention aussi ba ñu fiy wax reddito di ci cittadinanza moodu moodu yi faatu faatu yi pour la première fois man ma gis faatu faatu yi activé wu di daw di uti reddito di ci maa ngi koy soo gis Italie ñu wax benn bonus rek bu njëkk moodu moodu yi euh, euh, góor ñi ñoo daan dem di déposer yenn yi mais ak reddito di cittadinanza bi man faatu faatu yi laa gis ñuy daw di dem di lijjanti ji ay ay du di cittadinanza reddito di cittadinanza yooyu nag boo ko amee compatibleul ak yenn demande yi ci décret bii lu mel ne ay ay ay ay euh, six cent euros ay yeneen ak yeneen ak ay am na ci yu bari yoo xamante ni compatibleul am na benn particularité bu ma bu ma bu ma rëcc bu ma fàttee manam ko xamanteni usi aussi da nga nekkon un congedo ordinario mun nga do def dara fay transformer wu automatiquement koy ma wax len aussi benen affaire parce que moment bi c'est un moment euh, difficile moment bu critique la moment bu chaotique la angoissante aussi euh, patronat yi lu nekkul urgence patronat yi duñu duñ ci dugg duñu la wo naan la ay kii te kenn du dem ci patronat yi di jël numéro wala nga naan nga naan da ngay dem euh, comme ça rek euh, aveuglement suba damay dem patronat ba rek nga xëy dem ci patronat bi kenn du la jël kenn du la jël li ñuy jël rek mooy urgence te da ngay téléphoner pour ñu jël la boo téléphoné wu kenn du la jël je pense que nag nit ki du perte une demi journée risquer ay multe ak ay ay dénonce ak ay nangam ak nangam ba noppi dem jëluñu ko muy delluwaat naan ma ngay ñibbiwaat encore il faut que ñu informer wu ci ci yu bari sa boo amee nag doom ju am douze ans jëm seize ans mën ngaa am permesso mais kenn du la fay permesso retribuito kenn du la fay mën ngaa toog ci kër gi amul benn problème nga toog ci kër gi parce que da nga gëm ni euh, toog ci kër gi moo dal sa xel pour quinze jours nga toog ci kër gi mais kenn du la fay cento euh, quattro yi comme niñ ko doon waxtaanee keroog liñ doon waxtaanee centro quattro yi keroog ah. euh, ñun ci suñu biir am na ñu bari ñu am euh, ay ay euh, disabili wala ñoo xamante ni xëy na waajur la wala doom bu feebar ak yu demee noonu ñu ngi utiliser legge cento quattro yi nga xamante ni Tregiorni Almese la la ko doon jox wala nga ko daan Spalmare a Ore ñooñu tey gouvernement bi yokkal na leen ko ba mu nekk ci suma ma juumulaa ah, sëñ Pape euh, dee ma gindi parce que euh, yoruma dara ci sama sama loxo fi ñu toll nii damay dem ab maa ngi lay waaw damay dem abraat rek nii euh, yokkal na leen ko ba di sotto giorni n'est-ce pas du noonu la mm-hmm. voilà complessivamente entre mars ak avril ak avril mm-hmm. waaw nga nga mën yu bari nag dañuy jaawatle tam douze jours yi dañuy yaakaar ni ci ñaari weer la bu nekk douze jours Mm-hmm. ñoo jël weer bu nekk nga am ci ñetti fan. Mm-hmm. mars ñetti fan avril ñetti fan ñu dool ci yeneen fukki fan ak ñaar. voilà voilà dix jours. voilà mm-hmm. euh, ma am leneen lu ma laal aussi parce que bala sinon dinaa ko fàtte mooy xam nga euh, terzo settore bi xam nga ñoom it décret bi laal na leen. parce que xam nga ci juin bi normalement association yi dañoo waroon a aggiornare seen euh, seni seen ay seni ay ki juin xawma agosto euh, seen aï ay statut euh, yobul nañ len ko ba octobre donc association yi am un peu de temps am largement de temps ñom aussi pour euh mëna <clears throat> càmbar sen statut ak yenen ak yenen qui it ma wax association yi ben affaire association bo xamanteni aussi aussi sulo ça euh, sa statut musulo ko déposer albo régionale amulo ben obligation pour def lolu yow li nga mën rek moy bo ajourné ce ce directive et cetera a le comunale bobu nga yam comme association parce que mosoo ko yóbbu a livello régionale nga ajourné len ñom albo albo communale bi mais a niveau régionale bépp association bo xamante da nga nekk ci albo yi entro ottobre 2020 war nga ko aggiornare donc yokkaat nañ ko de quelques mois aussi foofu euh, certificat malatia yi o nga nekk in quarantaine en quarantaine euh, domiciliaire wa ila euh, ñu defal la tampon yeeg et cetera actuellement am na fondi intégrative yi sax yu intervenir Euh, ñii di liggéey par exemple ci comme man sama secteur muy te ñu am fond de phase phase chaque jour bi ngay def hôpital ba quinze jours yi ngay def hôpital phase dina la jox chaque jour quarante euros chaque jour. loolu daanaka fond yëpp la Sanarti cinquante euros la lay jox. voilà mi ngi joxe cinquante euros. Mhm. Euh, c'est comme si c'était rek de comme Rico rek lañ lay lañ lay lañ lay def quoi ñoom ñoom euh, logique boobu moom la ñu topp. Mhm. donc ce qui veut dire que euh, yooyu yëpp ay ngëneel la yoo xamante ni au cas am na ku mu dal ci mbokk yi. mais mais Pape Makhtar. Mhm. Euh, ci décréto bi euh, décréto bi am na luñ ci def lu bees loo xam ni nekku ci woon. Mhm. maanaam ñi nga xam ni. dara dalu leen woon ñu ñëw ñu ñu découvrir ni dañoo dem ci dita bi jëlee fa feebar bi. dañ leen koy jàpp dañ leen koy jox comme infortunio infortunio waa. loolu it euh, ci biir décret bi la nekk mais man li ma bëggoon ñu ñu gën ci taxaw. Mm-hmm. Euh, jamono ji est-ce que jaadu na yow bon parce que nag jaadu na tey jii ñun suñu communauté la ñuy waxtaanal. Mm-hmm. yàlla dafa dogal yow nga nekk benn sigle man ma nekk benn sigle. Euh, mm-hmm. communauté bi am loo xam ni vraiment lu jafe la ci loolu dama koy saluer ndax. mën naa ni sénégalais rek ñoo ko am. mangi xol kérok semaine bi passé à deux yi mhm. seen émission euh, ci télé Omar Ndiaye bi ma gis fa ñaan ak mhm. ak Fall mhm. euh, ñom ñaar di def ben émission mu melni ñun li ñu def fi ñom lañu def ñaan nek Ibrahima nek Chigel euh, Moustapha nekk Chisle te danaka bo xolé ku ci nek la nga gëna yor lu gëna bax lañu tek ci table bi c'est ko communauté sénégalaise bi mu doon njariñ ci ñun. mooy dëgg man man a alxamis bi paase. Mhm. fekk euh, yi amagul woon. def naa àllarba. Mhm. def mhm. naa benn vidéo conférence ak comité de crise bi nekk fii ci suñu zone bi province de Pise. Euh, ma bokk ci ak sindako yi nekk fii yëpp. daanaka kàddu bi lenn la bakkan jarul yenn yëf yi parce que dañu gis ni. Euh, li yokk contamination bi yëpp ci lieu de travail la. Mhm. démb maa ngi publier benn jigéen bu faatu ci caissière u mhm. ci liggéeyam la jëlee loolu ak euh, ñu gis ñi euh, ñi nekk ci secteur de santé bi ñooñu wax dëgg fa yàlla mooy jàmbaar yi. tey jii rek mhm. ñaari médecin faatu nañ. man ma jël samay responsabilité ni man de képp ku ma déglu. doon sénégalais yore njaboot dëkk ak say mbokk. man boo ma laajee dama lay wax ni la boo amul sax loo def jëlal mutuwa nga toog sa kër mais bul génnati ndax nag état bi dafa def confinement dama gis surtout lu fi jar ñuy risque di génn di liggéey mhm. ndax décret italia bi teg na ay ressources yoo xam ni pour compenser difficulté yi nga xam ni moom la liggéeykat yi waroon a am ak maanaam ponte bu ñu mën a jaar pour mën a toog seen kër te kenn du leen kenn du leen indil jafe-jafe est-ce que jaadu na tey jii ku yorewul liggéey bu stratégique boo xam ni boo taxawee maanaam ñu mel ni xeetu waa waa garasu waa par exemple camionnistes yi nga xam ni tey jii ñoom ñoo yore dundu dëkk bi hmm. ak matériel bi nga xam ni ñoom la ñuy séddale bu ñu taxawee Italie taxaw secteur logistique bi nga xam ni ñooy séddale tey jii euh, euh, maa ngi leen di masawu coono Euh, xeetu konaat lidal nga xam ni tey jii buñ liñ daan liggéey benn ñu ngi koy liggéey ñeent mhm. mhm. waaw distribution est ce que jaadu na tey jii pap ñooñu ñeneen jóg taxaw di liggéey di bravare yenn risque yi war a delloo si waat sa biir kër njaboot mais que ni ndax yow yaa fi indi parce que nag yëf yi commencé na jaxasoo fi mu ne nii bari na sénégalais yu ñu commencé confiné quarantaine ñu nekk ay mhm. asymptomatique am na ñu ñuy diagnostiqué ba gis ni ñi yor nañ ko ñu téye leen en quarantaine seen kër hmm. yow comme seen syndicato yéen seen sigle foofu lan ngeen fa am comme écho ci wàllu suba liggéeykat yi ndax nag ñun vraiment fi mu ne nii li ñuy pousse mooy nit ñi toog seen kër hmm. waaw euh, xam nga man tey ji pratiquement am naa société boo xamante ni euh, tamaate la ñuy defar ñuy def sax campagne Euh, sama benn délégué moo ma moo woo sax tey ci suba gi ne ma tiitaa bi nee na ñu demee nañu toog suñu kër euh, ñu utiliser suñu ay férié ma ne ko non absolutamente non euh, subito laa ni bëret toog ci computer bi bind diitaa bi le plus rapidement possible xamal leen ni intanto da ngeen a leen RSU e bi ak parti sociale yi pour waxtaan ak ñoom par rapport ak situation bu ñii waree wane toogee seen kër secondo amu leen droit toogloo leen seen kër defal leen ferie forzato mm-hmm. parce que ferie per legge deve essere concordato e anticipatamente man mënuma jël sama ay ferie su ma demee ba agosto cosa devi devo fare allora eh, ñaar mooy mën a am o ngeen dem def ricorso ammortizzatori sociali o ngeen def euh, riduzione produzione ngeen def euh, cassa integrazione a rotazione ngeen ridurre euh, kii Perché parce que d'après li ma délégué bi wax eh, per paura paura di che cosa su fekkee causale bi è covid-19 allora ci sono bisogna andare verso decreto cura Italia punto mm -hmm. parce aziende bi dafa war di sanificare locali eccetera e donc moodu yi aussi nañu def attention ci loolu bu leen nangu ñu leen di jox ay férié forçato parce que ñenn ñi ci ñun agosto la ñuy tàmm di dem Sénégal ñenn ñi ci ñun dañuy bëgg a julli ji tabaski ñenn ñi ci ñun dañuy bëgg a màggali ñenn ñi ci ñun dañuy bëgg leneen ak leneen ñenn ñi ci ñun bëgg nañ jël seeni férié da dajale ko comme ni ñu ko luwaa mayee jël sunu trois semaines wala quatre semaines dem Sénégal boo ko jëlee léegi nii di nga am problème suba pour jëlaat férié yooyu mhm. donc nañu tey ci affaire boobu comme nag état génne na ay xaalis yoo xamante ni nee na diitaa bi lépp du tegu ci sa ndodd man dinaa ci jàpp laboratoire bi tamit impet so ci benn partie dana ci jàpp euh, duñu ko jox lépp waaye dana ko jox almeno perfino a 80 per cento della retribuzione allora azienda yi faw ñu ricorrere ci euh, système instrument yooyu mm-hmm. euh, ñun fii li ñuy bañ moy nek que ñun dañ ni fi ak azienda yaangi ubi ñun syndicat bi dañuy ubi parce que ñun dañuy défendre intérêt si day laboratoires yi mm-hmm. tutelare i laboratoires yi maintenant euh, pëccëxoo bi nga xamanteni mom lañuy bañ moy ne que bëgguñu aussi mu doon ben alarmisme ci par rapport ak nit ñi di daw di euh, xëccio ji denrée alimentaire yi de première nécessité yi parce que société yu bari euh parma pratiquement ci alimentaire buma yaboni yeboo li fi parma di produire ci alimentaire amul benendek deuk fi italie mhm. parce que parma rek bu taxawé je pense moy moy sàqum italie wa mi ngi noonu moy sàqum italie ba tax fi fi parma problème bobu meun nañ ko baña a am ci euh, ah xaar ma taxaw dafa melni am nanu ko ko kilifa gi la assalamu alaykum wa rahmatullah warahmatullah alaykum assalam alhamdulilah sëñ bi fi nga duggee moom yéeme na de wax waxam dugub rek nga dugg yow da ngay tooñ da ngay tooñ ñoom ne xam nga ne jamono jamono jamono ji moom jamono sawmu la jamono woor la bismillah jamono ji moom xam nga ni gaañaa ngi barkeelu waaw ngi barkeelu auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mhm. astafirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه درا ولا نفا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا بسم الله الرحمن الرحيم يا فاضلا فضل الخلاق يا من به فرق الإملاق وجهتك اليوم ولي رزاق كان بما تنمو, تنمو بالأرزاق ما هوت ما هني به نفاه هني مها وجاني نافاق ردت لي ما زان والفاخ بمن به سنار في الأفاخ جاء رداء والفوز والإتاح بك كما بك maa ngi leen di baax di leen ziar di ziare lu baax seen jotaay ak seen a ngi def lu am solo loo xamante ni ñi ma ko waxee woon rek ngeen ci wuutu yéen a ngi leeral lu am solo ndax jamono yi xam ngeen ni eh, liñ naan eh, kii imprenditori yi ñoom xooluñu lu seen profit xooluñu lu dul seen intérêt ba tax na kun mën a sacrifier ñoom seen yenn ko ci eh, sëñ Bab li mu doon wax léegi ni waa waa Angleterre biñ seene Italie di takk seeni masque ñu leen di ree yaakaar ne mbir mu du yegg si ci yoon loolu man dund naa ko sunu dira ñuy liggéey Eh, ci début mars bi dafa njëkk a takk masque di ab opéra yi bi mu ñëwee dañ ñu ko soit da koy dindi wala nga dellu ci kër ga mhm. pour te dire mi ngi dans la bergamasque te bergamasque bi gis nañ ni fa la mbir mi ëppee mhm. waaw kon kon eh, xëy na li may wax c'est-à-dire quarantaine bi ñuy teg est-ce que eh, am na efficacité biñ doon bi ma doon laaj ñoom sëñ bab ni ma wala pa Makhtar ni ma xëy na luñ yéex jël la donc dañuy doog a gis ni xëy na dafa mel ni tey sax am na une légère baisse par rapport ak démb parce que démb vraiment moom ku déglu bilan <laughs> protection civile moom am nga kiitaange gu rëy rëy goo xam ne vraiment c'est exagéré ndax mm-hmm. sept cent quatre-vingt-treize personnes euh, mm-hmm. par la suite sax laa gis euh, euh, président protection civile yi clarifié ni ñi dee sept cent quatre-vingt-treize yooyu ñëpp deewuñu ci covid dix-neuf c'est-à-dire dañoo évaluer rek li dee ci Italie lépp loolu sax moom xaw a rassuré mais bu doon mi ni spécifié ko noonu donc euh, mhm. vraiment dañuy dañuy toll ci psychose boo xam ne kenn xamu parce que tam vraiment nit ñi dañ euh, paap nit ñi sonn nañ nit ñi sonn nañ euh, confinement boo xam boole nelawatuñu non kenn mhm. nelawul nelaw yi moom vraiment kenn defatu ko fi mu ne boo sëqatee sax yaakaar ni non man fan yee wax naa ko bind naa ko bind naa ko ci page nee naa leen ndobin gi ci dëkk bi tax na loolu la xusi rek nga yaakaar ni ndobin ngay ñëw dëgg la cest euh, boo boo boo sojee sax normalement wala nga juk am tuuti par exemple mal digestion wala nga jug am touti kii rek da ngay ah man mbaadu bagage yi dañoo yegg sama kaw donc mhm. euh, pratiquement ñëpp psychologiquement feebar nañ mhm. euh, te it kenn ñi mu wute sax dénoncé li lay métti mhm. loolu aussi ñu ngi ci <laughs> kenn du dénoncé loolu lay métti moom <laughs> parce que jàpp ngeen rek affaire bu ñëw ne kon yàlla nañu yàlla suturaal daal xëy na istigfaar boobu ma jiital Mm-hmm. Eh, sëñ Tuubaa def ko digle ci ñetti weer yi ñu nekk muy rajab shahbaan ak cheikh ramadan maanaam boo ko waxee diggante al eh, baar ba tàkkusaan mm-hmm. eh, suñ borom danaan malayka yi lakk leen jëfi ñaaw téere yi jëfi ñaaw def ko ko wax boobu istixfaar mm-hmm. mel na ni dafa mel ndax yàlla moom du tooñ kenn ñoo tooñ suñ bopp balaa bu wàcceer dañoo war a defaat ñu ma koy wax woon examen de conscience kenn ku ne xalaat ni xëy na tooñ nga suñ borom wala gis nga sa moroom moo xam ne tooñ nga suñ borom ñu mhm. jéggulu te jéggulul ko ni ko sëñ Saliou daan waxe maa ngi jéggulul suñu borom di jéggulul jullit ñëpp di jëlul jéggulul mbindeef yëpp loolu mooy wareefu jullit mhm. euh, bi ci des mooy yaa fadilan fadalul xalaaxu boobu mi ngi ñëw ci xasideg mafatul bishri te sin Tuubaa doon ci tagg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye bi mu yeggee ci bëy boobu am na ñu wax ne ci lañ ñëw ni ko euh, soxna aw bu so am na gan muy Cheikh Mouhamed Fadel Mhm. jële ko tagg yooyu yooyu bayit euh, mu jëmaale ci yonent bi jëmaale ci Cheikh fa Fadel muy ngëneel loo xam ni euh, sunu chance la sunu wërsëg la te mhm. gis nañ ni ba nga xamante ni wuutu na fi magam ju tedd ji Cheikh mu Moustapha al Karim en mhm. mille neuf cent quarante cinq dajeeg guerre bi euh, moo fay guerre bi moo fi jële ñàkk gi fi amoon jële fi ràmm ji fi amoon jële fi ndóol ji fi nekkoon jële fi néegi ñax yi jële fi laax yi ak cere yi daan togg lépp ñuy indi yu neex yoo xamante ni ak sañse nu woon euh, jiba muut dara direet euh, mot kii ñàkk moot kon ñoo ngi koy ñaanal ci jamono ji nga xamante ni tey jii mi ngi tombeek muy kazu rajab mm-hmm. bu dégg lay laytul almixraaj nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la demee woon ci sunu borom subhanahu wa taala mu teral ko ba jox ko sëriñ mm-hmm. juróomi julli yi ñuy julli tey mu dajeeg Cheikh Mouhamadou Fadel Guèye ci àdduna kon ñoo ngi ciy ñaan balaa bii ci àdduna yàlla na ko suñu borom teg ji ba mu jeex takk ci mbindeef yëpp ñu dund ba di ko xalaat ay ay xéewal toftale ci. amiin amiin waaw ginnaaw loolu nag ma andi laaj xëy na ngir ngeen àggale seen sujet seen débat ni ko Pape Makhtar waxee léegi yooyu nga xam ne dañ ko dañ ko joxe pour li naan xaw ma kuraare Italia. da ngay génn dem defi demande yi wala c'est-à-dire automatiquement c'est reconnu wala lan mooy modalité yi. Mhm. waaw eh, décret Cour Italia bi am na ci ay eh, système actuative yi nga xamante ni IMS déjà def na ko ci sitam eh, nit ki su su su fekkente ni nit xarañ na ci computer mën na ko defal boppam c'est des risques nag. ndax mën nga ko def juum IMS du la wuyu jamono bi waaye boo téléphoné patronat bi ñoom dinañ la jox rendez-vous sur rendez-vous rek lañuy jël je sais pas nag ci yeneen territoire yi mais ñun fii. sur rendez-vous sur rendez-vous la ñuy jël léegi. ñëpp sur rendez-vous pour éviter pëccëxoo bi daal ci ci ci ak yooyu. sur rendez-vous la ñuy hmm. jël defal la ko euh, patronat yëpp nag jël nañu si ay dispositions yoo xamante ni vraiment du duñu jegante nit ki ak yooyu yëpp euh, teg nañu aussi gel yi ak ñoom it boo ñëwee di nga leen fekk ñu takk seen i mascara seen euh, mas masques yi ne ak yooyu mais il faut que nit ñi aussi am habitude jël rendez-vous pour dem demander li ñuy demander am na ci yenn yoo xamante ni yu mel ni ay permis yi euh, permis su bi nga xamante ni da nga am doom ju am douze ans ba seize ans kooku da nga koy communiquer sa datore di lavoro rek jarul da nga koy yónnee message rek jarul sax ay def demande wala leneen ak leneen congedo bi aussi euh, da ngay téléphoner rek même sa fonctionnaire bi nga xamante ni moom mooy ñëw foofu di def euh, assemblée wala leneen ak leneen Euh, te muy suivre dita bi boo ko téléphoné mën na yónnee due righe azienda bi euh, à ton ci carte intestata ñu defaral la ko euh, moom mu jox ko patronat bi patronat bi yónnee ko sans mën nga sax bañ a déplacé wu yeneen yi ci des nag pour agriculture agricultura hmm. yooyu dafa compliqué parce que dafa am Euh, dema euh, six cent euro yooyu ñuy wax noonu pour ñi nga xamante ni cinquanta giornate nel duemila diciannove amoon nañu ko ñooñu il faut que ñu ñëw def demande bi euh, télématiquement parce que IMS moom moo moom moo yor affaire boobu agriculture yi agricole yi nga xamante ni ñoom it dañu am dañuy dem Cassa in Deroga ñoom meno di sei cinque dipendenti loolu jarul accord ñoom seen bitaa dinañ def ak seen consulente directement mais ñi en plus de cinque dipendenti te rientrare ci activité yi nga xamante ni vraiment non essentielle yi la euh, dañuy euh, seen consulente day defar euh, accord cassa integrazione bi yónnee ko parti sociale yi ñu déposé ko directement boobu laboratoire bi du dem fenn actuellement képp ku nekk Casa Integrazione amuloo lenn loo xamante ni da ngay génn da koy dem signé yi parti sociale yi ak consulente yi ak euh, euh, datori di lavoro yi ñu ngi ciy jokkoo telematicamente di ko yónnee soit la région wala ñu yónnee ko soit IMSS donc loolu amul lenn loo xamante ni vraiment euh, kii dañ koy dañ koy dañ koy kii waaw xam naa xam naa si Ablaye dinaa ko tontu loo xam ni dinaa ci tontul ñu bari. Mm-hmm. ndax bari na mm-hmm. gaa xam ni. ñi ñi ngi jël des ne ñii ñi ngi doon liggéey ñu toogloo leen seen kër. Mm-hmm. Euh, bari na classe su seer geeg jóbeen yu ma woo di ma wax nu may def ba du ma fay luyaas. <laughs> Euh, ci laa jëmoon nag ñu def ba bloqué mutuwaay man leen nag loolu. ngi ci biir décret Cour Italia bi. ak ñi hmm. nga xam ne liggéey ñu bari na sa jaaykat yoo xam ne dañuy ñëw nii la bonus six cent euros boobu nuñ koy jëlee ñooñu mënuñu cee bokk. Hmm. ndax nag il faut ñu waxante dëgg. Euh, loolu sax loolu sëñ loolu émission la sax nag. waaw waaye itam da nga koy leeralal nit ñi bari na ñu ma woo ni ma lu may def ba am ci bonus yooyu ñu man dama am ay doom yu bari. Hmm. maanaam euh, bonus asile nido bi wala babysitter bi astafurla. pour ñu mën la ko jox. il faut que ay des ba pare dem liggéey yow ak sa mm-hmm. euh, pour demander un demander bonus euh, babysitter bi te si babysitter bi da ngay contrat contrat le rembourser. attention mais mm-hmm. ñun sénégalais dañuy yaakaar Vous da ngay ñëw rek dem caisse. Mm-hmm. Euh, affitto récupérer ñi nga des

c'est-à-dire yi du dangay dem rek taxaw déposé. melul comme comme comme reddito di cittadinanza bi nga xam ni gars yi bari dañuy ñëw rek déclaré def seen auto certification yi ñu jox leen déedéet. Pura Italia bi jaaykat yi jaaykat yi sëñ Ablaye wax dëgg fa yàlla. Mhm. foofu ñun ñoo war a créer suñu réseau de solidarité. mais jaaykat yi nga mhm. xam ni mosu ñoo fay taxe. mosu ñoo mhm. mosal état bi état bi du leen mosal. dëgg la ñoo ñoom ils ne sont même parce que nag reconnaître leen fenn. kooku ñooñu mm-hmm. bu soxlaa dimbal. bu ñu jaarul mm-hmm. ci daayira bi wala association bi Caritas rek a leen mën a dimbali. Mm-hmm. dëgg léegi bu dee par exemple euh, xam nga dañuy defoon décret Cura Italia daal ni stop à bollete e mutuo. waaw yoo yoo yooyu yooyu tam. mi kenn koo xam ne mi ngi liggéey. moment bi euh, ñoom ñu ñu toogloo la ci kër gi par exemple comme par exemple ñu ngi utiliser par exemple casse intégration extraordinaire mm-hmm. euh, salta moto boobu c'est-à-dire dañ koy demander wala. salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si taaxir loolu tuuti rek ma dugal maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu. bisimilah bisimilah sëñ Pape jël jël ko jël ko jël ko. <coughs> bisimilah soxna si. salaamaaleykum man la soxna astu maa ngi leen di ziar bu baax baax maa ngi woote ci astu cham, ah cham cham na nga def soxna si ñu ziar bu baax a baax kooku mo moo di bay Thiam yam mo lekk dañuy wër ci rajo bi kooku saareen la waaw waaw yow daal maa ngi sama kaasu ndox di naan rek man ndox laay dundee kon dama la waroon invité tey sama bernde bi dama doon invité ci bernde waaw xanaa dañ defal auto certification ne kon. <laughs> waaw waaw noonu laa lay def <laughs> bind ci rek de la part de Serigne Fallou. <laughs> waaw mi ngi noonu bu baax a baax. ak saa ak saa. ñu ngi bu baax a baax. Mm-hmm. soxna Asou jërëjëf Thiam jërëjëf lii ma soxla sama tur bu baax ko dégg dinañ ko dégg bu baax. alhamdulilah ñu ngi lay ziar ci bés bi. te di mm-hmm. masawu ci xew-xew corona beeg yooyu yëpp ñu masawu ñëpp. Mm-hmm. di ñaan yàlla ak yonent beeg sëñ Tuuba jëlal ñu ko fi balaa yàgg. Mm-hmm. fàtte ko. sant bu baax euh, dama amoon ay question yu ma bëggoon laaj te nag ñu fan yii yëpp nag ça me au cœur am euh, aw ma ku ma koy laaj. boo wootee ko la ñu ne la xaaral rek dinañ la SMS. parce que sama doom dama ko defaloon regroupement familial léegi mu war a ñëw le deux bii la amoon rendez-vous. Mhm. bu baax doo ko bantuwaat. ma sama doom dañ ko defaloon regroupement familial moom mi ngi Sénégal. waaw. léegi ñëwoon na ba déposé yëpp ba ñu yóbbu yëpp poste donc dafa war a def empreinte am la war a jël. ah dafa war a dem def photo signalétique. waaw ah, photo le 2 avril bii. Mhm. mais man jotuma benn.

waa xamal leen ni leen da nga amoon rendez-vous tel joxe joxe joxe daati généralu xale bi nga war a dugalal kii bi loolu loolu yow daf lay daf lay dimbali pour ëllëg nga mën a wax ni yow kat maanaam jour bi mënu woon dem parce que jour bi ñëpp xam nañ ni dañu am dañu tëj d'accord d'accord waaye dina la mën a permettre sax waaw voilà dina la mën a permettre mais xam naa ni wax dëgg fa yàlla Euh, ren ji deux mille vingt bi. yeboo ñu xam ni chaos technique lañ jëm. Mhm. ndax déjà Kes Touré yi dafa nekkoon chaos ak pagaille. Mhm. figurate bi lu mel ni am fi. Mhm. il faut ñu armé wu patience. ak organisation. waaw man dama bëggoon xam juste rek. nan lay def pour am communication. soxna si fi ne nii ku la mën a wax ni la fii ngay tege amul. maanaam xam nga li ciy pexe mooy boo amee pek bu dee pek la. pek man dinaa la yónnee sama numéro téléphone boo ma yónnee boo ma yónnee reçu wuute yi ak euh, code fiscal beeg yëpp. d'accord dinaa la mën a yónneel pek ci euh, questura de de de kii bi nu mu tudd. questura bi nga xam ni mooy sa questura de référence. d'accord incha allah peut-être par pek dinañ ma tontu parce que man am na ñu ma ko defal.

Mhm. liggéey bi ñuy def daanaka mënuñu ko boole ak administration. dëgg la dëgg la saa ñoom ak médecins yi ñoo ndax jamono ji ñoom ñoo nekk ci sur le terrain di def contrôle daanaka ñi nekkoon ci bureau yëpp génne lañ leen ndax personnel doyatul fenn. dëgg la mhm. dëgg la kon nag ku la mën a wax ni la lii la ñuy teg ndax Italie amul yoon. dëgg la questure bii dafay appliquer euh, mhm. euh, euh, yoon wi. nga dem beneen questura mu defal la yoon sangam beneen questura mu defal la yoon sangam donc ñun il faut communauté yi association yi c'est le moment ñu organiser wu mm-hmm. seet ñi am problème ñu def benn mappatura mm-hmm. ndax lii lii ñu jëm nii lii ñu jëm maanaam rien ne sera comme avant loolu moom il faut ñu waxante ci patronat yi sax patronat yi sax attanuñu ko suñ paa voilà il faut il faut il faut il faut il faut ñu yaraat suñu habitude yi mm-hmm. comportement yi nga xam ni ak taxaway bi wat association yi association yi wat nañu war daan liggéey bu njëkk ñu def ko ubbi benn livre boo xam ne dañuy seet képp ku am problème ci commune bi wala mm. province bi association bi fa nekk ñu mm. recensé leen téye leen ndax nag association président association bu fekkee xam na ay prérogatoire am am mm. demander demander audience préfet wala questore toog ak moom ni ko yi kat ñoo fi nekk naka la ñu mën a def ci benn parcours boo xam ni dañ koy def parcours percorso condiviso mm-hmm. insieme ñu lijjanti ko ba nga xam ni communauté bi du gaañu yéen it duñ leen sonal mais nag loolu du ñàkk danañ ci waxtaan ak association yi ndax kades organe bu mel ni kades ak ñeneen ak ñeneen xëy na loolu mooy moo war a nekk seen warugar ba nga xam ni ñu taxaw si waaye nañ ko waxante fi mu ne nii euh, yàlla nañu dimbali waaye Euh, euh, euh, maanaam ñi ngi ci guddi goo xam ne xamaguñu lan la ñuy fekk. ah dëgg la de compliqué na de. parce que rek li ma doon ragal mooy ñu ñu dem ba date bi jot wala mu passé ñu ne ah yow joxoon nañ la rendez-vous bu tel date ñëwuloo te man jotuma communication jotuma dara donc. loolu rek laa doon ragal moo tax ma ne xaaral ma laaj. ma renseigné wu mënta nekk mënta nekk allah. non non euh, euh, activité préfecture préfecture yi ak euh, questure yi yooyu yëpp dañoo rentré ci activité différibile mooy acti activité yi nga xamante ni dañ ko zlittare ba ca ay trente juin. incha allah en attendant. actuellement nii même parti social yi mooy syndicat yi. ñi nga xamanteni ñoo nekk ci département immigration yi ñu ngi euh, bind bataaxal sax pour ñi sénégalais ak immigré yi nga xamanteni ñu ngi ci seen dëkk te dañu ak richevou ta richevou plus de trois mois amo droit nekk ko sa réew ñeneen ñi nga xamanteni aussi seen séjour dafa jeex ci diggante bi te ñu nekk ci seen réew toog fa ñu ngi waxtaan pour que demander le ministre des affaires euh, le ministre de l'intérieur pour que ñu wax ambassade, yi yi jox pour ñu donc actuellement ni phase la euh, même ñoom tubaab xamaguñu phase post post coronavirus. naka lañ koy parce que phase bu difficile lay doon. moo association c'est le moment où jamais une fois nous phase vraiment association yi def le tour wala def benn assemblée générale rappeler problème problèmes sénégalais yi nga xamante ni dañu am yenn situation këyit yi et cetera et cetera patronat yi duñu ko attan bu boobaa parce que demande yi patronat yi nara nara nara a euh, euh, jànkonteel dana bari bari koo xamante ni maanaam kay liggéey biñ euh, maanaam liggéey biñ jëm liggéey sacrifice la laaj daayira association yi te it nag il faut que sénégalais yi euh, delluwaat respecte yoon mm-hmm. ndax dèjà bari nañu fi am problème mu këyit mm-hmm. buñ ci boolee ñoo xam ni euh, dañoo am këyit ci yoon ba pare risque di ko ñàkk mm-hmm. ci loo xam ni xamuñu fu ñuy teg seen tànk mën na leen porter préjudice ci lu yéeme moo tax man ak yooyu yëpp Mm. Lui euh, jadou la asosyasyon yon jogat Asosyasyon yon defa am don bolor Am niteji Boko ne ke mou demande Odyans Kwe store Tem tog ak moun You boul ko kaye de chas Yon bo ak am yon do kwe Paske kominote eh, be ko fel Moun mwen mm-hmm. yon dawal kominote bi Tem di kominote bi Mangi rafet lou Asosyasyon yon bari komasyon yon oubi kanal Mangi gis lige yon bini def Mangi salye yon abdouba

Euh, parce que vois la solidarité bi rôle association yi gis rek association Luka association bou, defe naa association bu association jox nañ euh, euh, euro protection civile waa waa def nañ association yeneen dëkk yi waaye nag waa coniliano moom dañ di nañ leen jox nañ jox soxna a une association sénégalaise bu jóg. Euh, daagu euros. mu mu parce que c'est une fierté. xeeb li nga yor. Ah, am sax dëkk yu am discussion di wax ni sénégalais ko soxla phase la ci waxtaan ci biir émission bi Mhm. waa loolu dëgg la ndax xam nga solidarité moom la may wax ci sama vidéo ba rek euh, ñun ku ñu ci woo rek dang ñu caa fekk wala dang ñoo xamul ndax euh, <laughs> yaakaar naa ni sëñ Modou Moustapha ba muy wootee daayira yeeg euh, yenn yi forme de solidarité la woon boo xamante ni seet na naka la ñuy mën a saafara saafara sunu sunu sunu ay ay ay ay problèmes yi ñuy am ci sunu biir dimbalante ci sunu biir kon bu ñu tolloo jamono boo xamante ni Euh, naam jafe woon na ay jamono pour nga mëna identifier ñan ci sénégalais yi ñoo am yenn jafé jafé etc mais actuellement daayira yi dem nañu ba ag ci benn liggéey bu bu bu macha allah ba nga xamanteni ni ñoom ci seen biir am nañu ay commission yoo xam ni ñoom xam nañu ñan ñoo am ay yenn jafe-jafe ci suñu biir xëy na association yi parfois dañ koy dañ koy xaw a manqué le tuuti mais alhamdulilah bi nga xamanteni ni daayira yi Euh, ñu ngi liggéey liggéey boobu ci côté social bi surtout euh, ndimbal nag xam nga booy dimbali koo xamante ni dafa soxla euh, ku nekk ci jafe-jafe doo toog di xaar da ngay jóg loo am rek nga dem yóbbu te loo yóbbu it dana doon milliard ndax du loolu moo am solo waaye geste bi nga xamante ni def nga ko ak yëg-yëg bi nga xamante ni def nga ko ak wane bi nga wane tubaab yi ñun naam juddoowuñu fi waaye sunuy doom fii lañ juddoo waaye bokk nañu ci réew mi bokk boo xamante ni hôpital bii ngeen nekk nii hôpital bii malaat yi nekk nii kii tëdd fii mën naa fee tëdd sama doom mën na fee tëdd sama mbokk mën na fee tëdd te it la tabax hôpital bi sama dërëm a ngi ci ndax damay liggéey di fay tax oh. kon wane boobu ñuy wane ñun suñu solidarité euh, am na fi ay tubaab yoo xamante ni defuñu ko ndax solidarité bi ñuy def ñun mais ñun immigré yi rek ñun ñoo koy def mais tubaab yi société yi ñoom ñooy joxe ay xaalis di def solidarité mais tubaab yi dajaloo wuñu man de koñ bii ma nekk dégguma kenn ku fi dajale ne dañuy daje nañ dajale pour dimbali kenn dégguma ko fi de. da ngay dégg ñu ne la bari laa joxe na dix millions nga dégg ñu ne la kee joxe na nangam nangam wala nga dégg jokkatoore bu joxe euh, cento mille euros wala nga dégg ñooyu rek ngay dégg. Mm-hmm. mais tubaab yi en personne dégguloo kenn ku yikk yëkkati dërëmam dugal ko ci système sanitaire bi. te loolu ñun c'est un produit boo xamante ni wala ñu ko jël def ko ci tiroir yi ndax ëllëg dina ñëw mm-hmm. bërki démboo njaay la ñuy dund fii euh, période salvignano bërki démb ñun ñëpp ñu mel ni euh, mosuñu fee def dara ñu terroriser ñu ba nga xamante ni ragal nañoo sax wax ci sunu biir liggéeyukaay yi ñëw da ngay wax sax tubaab yi di la di defar ay batuuta yoo xamante ni di la wan ne la primale yi mais tey yaakaar naa ni jëf ji nga xamante ni ñu ngi koy def association yi di dajaloo di jël lañu am di ko def ci kii war nañ koo jël gën koo fésal te wan waa Sénégal nag xamal leen ni euh, bët bañ doon teg immigré bi démb nañ continuer di ko teg immigré bi parce que seeni doom lañu ndax réew ma bu amee fu mu toll ci koom-koom yii la seen loxo la du loxo keneen xanaa xanaa gars yi daw italien ngay ngay ngay gaawaat italien yi di jël seen vidéo yi di ko wërale naan ah foo jóge italien nangam nangam ñaaw stigmatisation <laughs> waaw sëñ sëñ Ba. yow lay te xanaa xanaa loolu yéeme na la de gis nga gars yi ni ñuy ñuy def semaine bi waaye man dama gis ne suñu gouvernement moo ci am responsabilité. parce que c'est euh, communication euh, boo xoolee premier euh, ministre bi buy def conférence de presse buy mhm. wax mhm. kay am Sénégal day wax kay yi Europe <laughs> ka importé ka importé ka importé. mais qu'est-ce que euh, ça veut dire ba ci démb sa ba ci xam nga lu ma ci naqari xam nga lu ma ci nakari ah. Hmm. suma ba ko fa njëkk duggal dugal dootuñu ko tudd. waaw faté nañ ko dé Moodu faté nañ ko ñoom Moodu bi jóge Italie moom fi moy toll mooy ba ci démb sëñ Ablaye. Eh. RTS. Euh, sunu consul général def na mento en direct via Skype. Hmm. waaw confirmé ni Modou fii am nañ ko moom am na ci am na ci confirmation donc ce qui veut dire que ni. Euh, hmm. le modu est est portateur de de virus. Hmm. moom moom moom loolu loolu dong la mën a loolu dong la mën a annoncé moom. information daanaka lu doy waar parce que nag dama gëm ni tey jii sunu ay autorité war nañu toog même bu ñu amee cas yooyu sax. Euh, ñu wax ni situation bi doy na waar euh, euh, ñi ngi ñi ngi monitorer lépp waaye taxaw di wax ni am nañ fi ay confirmation ba tudd sax Brescia. Mhm. waaw loolu xam nga xam nga xam nga leneen bi ci gën a metti mooy ñun ñaanuñu ñaanuñu ñun rapatrier ñu mhm. ñaanuñu ñu ñu dimbali ñu fii ndax yàllaa ngi ñuy dimbali mi ngi ñuy sutural dafa mm-hmm. fam lu manke lo xamni ñaari baat dong la waroon a doon mu doon señ bi manam xel mu dal ci bepp immigré bo xamni yaangi yaa rew hmm réew mm-hmm. Mm. Mm-hmm. mooy tey ji euh, kenn ci ñom les personnages étatiques du Sénégal ba ci ministre de de la santé buy def briefing am bobu euh, au jour le jour mm. mu dal ni sama xel a ngi ci doomi rew mi nga xamni ñanga ci bitim rew benn baat bobu da doon doy manam déggaguñ ko maanaam dafa mel nun nekk dunuy sénégalais quoi eh, hmm. maanaam si rajo au moment où eh, xam nga italien yi jëli nañ bari jëli nañ seeni doomi réew yoo xam ne nekkoon nañ seen hmm. américain yi def noonu ba ci mobi mobi eh, princesse boobu bato boobu gis nga ñoom ñëpp def na ay convoi jëli seeni doomi réew ya fa nekk ñun laaj ñun sax wax ñu rappare ndax ñun diine ji ñuy dund dañoo xamal ni mbas fu mu am boo fa demagut bu fa dem boo fa nekkee bu fa jógee ñun loolu la dëgg la. yàlla bu wér a wér wóolu ko nag te xam ne yàlla mën nañ ci musal dégg gi dong day ëpp ci ñun. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye da doon jaadu ndax contribution bi nga xamante ni nii dañ koy def ci Sénégal ak ni nga ñu wooye woon ne ñun ñooy la quinzième région du Sénégal parce que da ngaa ay vote mm-hmm. ci jamono bu mel nii nga nga nga au moins nga nga fàttali ko cest dire même les morts da nga leen di fàttali ko à nos morts c'est-à-dire baat boobu day jariñ loo xamante ni day rassurer. day dalal xel donte yow seen ndimbal matériellement dikkut ci ñun seen ndimbal physiquement dikkut ci ñun. Mhm. mais mhm. xalaat bi pensée bi nga ne woon au moins ñun kat ñoo ngi ci ka euh, cas d'émergence fii ci réew mi ndax dafa mel ni feebar baa ngi waaye nag sunu xel aussi mi ngi ci sunu doom yi nga xam ne ñoo ngi ci biti réew mi nga xam ne fii képp koo xamante nii yor nga wayjur wu jigéen ca ca réew mi wala yor nga wayjur wu góor wala soxna su la bëgg bis bu jot mu nemmee ko la ci lu ngeen nekk mbaa yéen ngi ci jàmm. Mhm. ba ci ñaan gu baax yónnee la ko yaakaar dëgg mu ci ñu lay carré mais l'état anamu hmm. kon tey jii bu dee euh, euh, consul gen dafa dugg moom joxe lu di confirmer ay cas daal c'est c'est dégoûtant hmm. Hmm. c'est dégoûtant man man man day gis nga sëñ Ablaye damay wax ni peut-être le ministre stratégie de communication euh, la la ca manqué bari na au delà de du sax dëfal immigré yi nga xamante ni nekkuñu bitim réew. Euh, hmm. ko neexee moom mu ne man ñu loolu du sama cër am na secrétaire euh, secrétaire d'État des immigrés xaw ma nangam ak nangam kooku it dégguñu ko su dégguñu solidarité. ah le ministre des Sénégal de l'extérieur anamu. Ah, waaw parce que kooku. normalement le ministre des affaires étrangères anamu. warul woon accepter sax ñuy communiquer noonu parce que dañuy tuutal sax moom liggéeyam. warulon accepter lolu te le ministre de la santé fay faté ni ambulance yi buñu buñu buñu tolo ci ci ci ci téeméer Sénégal demb ak bëri ki demb euh, mm-hmm. euh, euh, fanwer lañu won mm-hmm. immigré yi ñoo manko fi association yeeg ñeneen ak daayira yeeg yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen demandé ñaan ñu may leen ay ambulance ñu yobbu ko Sénégal. Mm-hmm. yenn village yi mbam lañ daan yor wala saret daan ci yobbu daan ci yobbu malade ak jigen wëru bi auto immigré bi mo doon ambulance su dëkk ba mm-hmm. bu village ba démé ba am ambulance immigré bi mo mo ray bopam ba di village ba am ambulance dañuy faté ni coopération internationale fi immigré ñom ñokoy dox ak ay euh, euh, onlus yeeg ong yow yu loxo immigré bi moom mo ci mm-hmm. dañuy faté ni immigré bi kërëm moy faj ay nitam état moy faj njabotam ndax ku ci photo photo ah, euh, euh, ordonnance il bon bon bon euh, ordonnance bi ndax faju bo bay stigmatiser mais kon vraiment ñun immigré yi c'est le moment où jamais c'est le moment où jamais buñ ci ñu suñu bu aussi sur le plan politique surtout parce que nag man je pense que dafa am ñoo xamante ni dañuy se su la pelle des sénégalais yi de la diaspora. <laughs> dëgg la dëgg suñu Pape xam naa ni loolu moom ñu ci duggee dina dina sori lool. te dama bëgg ñu laal benn partie boo xam ni euh, dafa dafa maa so euh, euh, dafa maa soxal lool sax mu di wàllu solidarité bi nga xam ni moom la ñu war a nekkee fii naam hmm. wax nañu solidarité bi nga xam ni mooy suñu digganteeg waa dëkk bi. waaye hmm. gis nañu ne dëkk bi ñu nekk Italie euh, bari na secteur informel bu fi nekk euh, hmm. daanaka kër yi yi mood yi di nekk daanaka ñetti kër yoo ci jël benn kër bi këru jaaykat la jaaykat comme niñ ko waxee sànq amul amortizzatore sociale amul hmm. lenn loo xam ni da koy xalaat di ko yaakaar ci ci état bi euh, bari na dëkk kër yoo xam ni semaine ba semaine la ñuy wadd dépense gaay dañuy xëy dem jaay ku nekk jaar benn côté bu nga bu ñu dajee ku nekk teg sa ta si table ji sa dépense mhm. fan yi tëju bi yàgg na daanaka dëkk bi seen zone boobu ëpp na weer bi ngeen commencé nekk confinement mhm. ñun ci daanaka ñu ngi dugg ci ñetteelu semaine bi mhm. mu mel ni kon tey jii euh, am na ay ay barab yoo xam ni buñ ci wàllu solidarité sunu biir rek dina xaw a doy waar lool ndax dafay mel ni kon balance bi dafay déséquilibré wu lool. Hmm. Euh, liggéeykat yi nekk ci seeni kër. danañu hmm. am lu mu lu mu tuuti tuuti ay amortisateur sociale. du hmm. sax lu mu tuuti tuuti ndax dana danañ ci mën a taxaw bari nañ am na loo xam ne buñ la ko joxee gën ngaa tuuti di nga am lu ëpp 50 pour cent ci sa salaire. te nag boo toogee liggéeyoo wax dëgg fa yàlla nga gis ne fii service yu bari dagg nañ ko. daanaka c'est que loolu mënees na ko comprendre. waaye ña nga xam ni toog nañu dëgg dëgg yaakaaruñ ko fenn te it euh, euh, daan nañu yónnee am fii lu ñu war a fay moo xam donte taxawal nañ ko sax waaye xeetu dund geeg yooyu mëneesut ñak ñàkk kooku mënees koo ñàkk bañ a def ndax boo nee sayer tey jii da ngay tëju wala <laughs> ah, ah, ah, ab jobeen ni ko da ngay tëju semaine doo génn wala wer euh, te doo te doo wuti loo loo loo saxami moom dana metti est ce que jaaduwul semaine bee rek maa koy maa koy wax la space de solidarité ñu ubbi daayira yi ak association yi tey jii sénégalais yi nga xam ni wax dëgg fa yàlla mënal nañu seen bopp nit ku génn sax ah, ñu tàmbalee ko ci daayira yi ku génn am mbuus moo jënd def ko benn di longue conservation ne ñu bàyyi ko ci daayira yi ñu commencé nag di fëgg ci kër yi di leen ko fa sànni mu doon une forme de solidarité ak na daayira yi war a defaroo donte daayira yi moom duma leen ko wax ndax bari nañ yoo xam ni moom ñom xéetu suñu ablaay yi mën daanaka tàmbali nañ ko def euh, hmm. bëggoon daal vraiment ñu waxtaan ci wàllu solidarité bi ci dernière pàcc bi noo leen ko gisee waa man de sëñ pap jàpp naa ni loolu nga wax noonu xalaat la boo xamante ni war nañ cee jublu ndax xam nga waruñoo moment la boo xamante ni waroo toog rek ni man sama bopp rek lay xalaat ndax jafe-jafe moom yaakaar naa ni ñun ñi ñëpp kenn kuñ ci yewoon ñeenti weer ci ginnaaw ne la italie dina toll jamono bii yaakaar naa ni doo ko gëm buñ ci yeewoon ne la bergamo gee am na ñoo xamante ni ñu ngi dee ci seen biir kër te kenn defalu leen tampon doo ko gëm buñ ci yeewoon wax la ne la Italie dina dem ba am ay jafe-jafe sax amuñu mascarine wala amuñu ay médecin yu faj ay nit yu feebar doo ko gëm kon sénégalais bo nga xamante ni sori woon nga daayira bi sénégalais bi nga xamante ni sori woon nga association bi wax dëgg yàlla si le moment aussi euh, nga gën a euh, laxasuwaat xam ni nit nit moy garabam te nit mbokam fepp fo doon fréquenter tay yak nga ko te li meun nako firndel ndax ñun ñi ñun ñoy tok en tant que sénégalais di xalaat suñu mbokk sénégalais waye ña nga doon fréquenter demb ak bërki démb xalaatuñu la tay faté nañu la ndax bo wacce sa and and bo dem fekk fa borom tok lolu nak xalaat la bu rafet bo xamanteni man dama gëm ni su ci daayira yi waxtane loolu nga wax noonu kuti ci nduggi rek ñu jàllale message ku ci nduggi ndax mënoo wër këraw kër ndax yëf yi mobilité bi réduire na euh, dañ koy sax dakkal nag waxuma la réduire waaye dañ koo dakkal. Mm-hmm. ba nga xamante ni euh, dana xaw a jafe waaye la nga yéene rek nga ni naa jël mbuus mi yéene ko ndugg ci ndugg moo xamante ni damay yóbbu rek euh, kër kër sëñ ba bàyyi ko fa. Mm-hmm. boo ko fa yóbboo. dana du ñàkk dana am kenn ci kër sëñ bi koo xamante ni moom mën na koo gérer tranquillement sans pour autant que ñu euh, ñu ñuy personnaliser o o mbuus mi wala ñu personnaliser ka ñu koy jox ak ka ñu ko dul jox buñ ca jogee nag ñu daal di ciy def buñ ca jógee ñu daal di ciy def nag njàngat bu am solo ña ña daawut ñëw daayira def ci njàngat bu am solo xam ni daayira bi mooy sunu valeur ajouté daayira bi moom la ñu am te Euh, muy neex daayira bi moom moo fi nekk bu naqaree it daayira bi moom moo fi nekk di taxawu nit ñi ñu gën ko dooleel ci lépp nag lu mu mënti doon forme de solidarité boobu daal vraiment man lu ma rafetlu la donte nag ñoo ngi ci ndax association yi ñu ngi dimbali le système sanitaire c'est très normal gis naa tey euh, au niveau du Sénégal euh, Alioune Ndiaye moom it mi ngi ubbi benn téléthon di def solidarité pour diaspora bi loolu yëpp rafet na waaye waruñoo fàtte tamit sunu ay euh, naataangoo sunu mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo ngi fii waxuma la sax jaaykat mais sunu mbokku taalibe yi nga xam ni seen yaram sutante na mënuñoo génn mënuñoo dem fenn sunu mbokku taalibe yi nga xamante ni seen. say euh, waaw. na ñu fi toog nekk ci difficulté yu métti am na ñu fi mettre en quarantaine waaw. parce que bu ñu la mettre en quarantaine maanaam du état bi moo lay dundal de. déedéet. xëy na yow mën ngaa wax ak euh, association volontaire yi mhm. li ngay dem jëndi nga leen koy jox ñu leen koy jëndal mhm. waaye boo yorul loo leen jox nooy def tey jii ah. am na ay mag ñu fi nekk ñoo xam ni dañ daan xëy man dëkk yi ma nekk wax dëgg fa yàlla la ma daan xëy di gis euh, mu ma daan metti nag neexuma di gis ñu nekk ci mhm. parking yi di gis ñu nekk ci buntu supermarché yi di fa lijjanti ay fukki euro 30 euro ñooñu gisatuma leen. Mhm. ñooñu loolu lañ daan dundee. dëgg la doonte neexuma nag waaye loolu lañ daan dundee. Mhm. ñooñu ah, dafay ah, jaadu ah. ñu toogaat def mhm. benn examen de conscience ñun suñu biir. waaw rawatina nag ñi nga xamante ni tey jii caabi da leen a féete ginnaaw te yor fi njaboot. te bu ñu fàtte yi na am na fi. te bu ñu fàtte it ni am nañ fi suñu ay mbokk yu nekkandoon ak ñun fii te tey jii danoo faatu koor yi mënaguñoo dem seen njaboot am nañu ndimbal gu ñuy soxla mhm. waaw ndax euh, bu fekkente ni soxna si rek moom moo fi nekk la ko dal rek mat doy nag métit la ko dal rek doy nag métit kon taxawaay yooyu ñun dañ koo war a di gëstu dañ ko war di gëstu mhm. maanaam waruñu tudd individualisme bi parce que bokkut ci ñun te xamuñu ko Mhm. waaw sëñ Ablaye waaw bisimilah bisimilah jërëjëf sëñ Pape jërëjëf yéen a ngi wax lu am solo loo xam ne rek daanaka mooy eh, innamal mu'minina ikhwa waaye faslihu bayna axawaykum jooju dal moom itam moo ci moo ci xaw a manqué jullit jullitay mbokkam waaye nañ ko rafetal mhm. eh, liñ ñu wax léegi rek ci taxawaay bi nga xam ne moo di dañ ko taxaw état Sénégal xam na mbokk mu ma yónnee léegi muy suñu bara baabu maa ngi koy ziar bu baax. Mhm. day faral di dugal ay bagage yi nga xam ne yóbbu na ko nee na ma euh, wan na ma photo bi léegi yónnee na ma ko ni ma euh, benn association moo jënd ambulance bi jënd gul safar nag nga xam ni mhm. ngir dimbalee ko euh, waa réew ma loolu xam nga mooy li naan wax day tungam ay seedeem ah, kon état Sénégal nañ bàyyi xel seen doom yi réew mi te yàlla xam na ne am na beneen émergence boo xam ne moo doon raw li gis nga bu Modou yëpp boole woon dem ñibbi état Sénégal am problème. Mm-hmm. leer la loolu beneen débat la ndax lii ci aju lii ci aju dafa bëri. lii ci aju dafa bëri bu Modou yëpp di xëyante yi benn jour ni suba ñun ñëpp nañ ñibbi Italie moom dana am problème mais Sénégal le pays accueillant dana am problème kon ñun ñu dara loo xam ni lu ñuy jox matériellement la nañ ñu fàttali ko rek xam ni ci réew mi lañ bokk loolu rek loolu lañ soxla beneen bi ci mooy li ngeen di wax muy ndimbal nii. lu am solo la te dañoo toll ci moment xëy na d'émergence moment boo xam ne ñëpp soxla ni ko sëñ Pape waxee nañ lijjanti mbir yi ba noppi doog a seet ku ci bokk ku ci bokk bu boobaa sax loolu la la yedd loolu li ma ciy jàngate mooy Cheikh Mbacke li mu ñëwoon am na lu mu doon séddale lu ay lu mel ni ak jur la mu séddale kim ko joxoon mu séddale ba noppi mu andil ko lisi mu xool xool am turu kilifa gu mu ci gisut mu ne ko fii lu tax joxu leen ko mu ne ko Mbacke kooku da laa ji wut mu ko waaw ginnaaw moom damaa jubu te lépp lu may séddale ñu xañ ko ko tañ la may jubu te ginnaaw daal di daal wut wut uh, jàtt bu baax boo xam ne ba koy uh, yóbbu kër kilifa googa taalibe kilifa googa yi nga xam ne ñu nga toog ci buntu ba di seen di seen nagoo dañ naan la nag de buñ ko amoon ci sunu gàmmu gi a baax te moom ndekete booba ci seen kër googe la jëm si <laughs> kon nag xëy na uh, mooy li ngeen toll ci jamono boo xam ne xëy na ku ko sa yàlla sa loxo mate boo mënee def loolu suñ pap di wax di dimbalik ñi ko soxla ñu bañ ci wut hmm. xajj ak seen xamni ñom ñep ñëpp suñu mbokki taaliba lañ suñu mbokki sénégalais lañ hmm buñ té tax nak ci ban diiné lañ bokk donte sénégal la rek tax hmm bu boobaa nak sa di lam lay jural mo mo fop lam lay hmm ndax da nga am rapprochement ci nit ki dana jéem a wat parce que lii li pa pamatar wax euh, boo wàccee so ànd and bo dem fekk ci borom mu tok da nga nek ak say morom sénégalais ñu nek ci communauté nekk ci daayira di ci yëngu yow nga berse yoonu bokk ànd ak tubaab yi ànd ak nasaraan si boo bonee ñu bala sa mbok maanaam mbokki senegal yi nga doon daw moom ngay gis fii ñun ñëpp yaakaar naan ñoo bokk genn gaal guñ nekk ëpp ma jot ëpp ma la xaalis ëpp ma la xam-xam li ngay dunde rek laay dunde damaa bàyyi lee def lee rek kon loolu rek moo fi nekk kenn ku nekk da ngaa a bàyyi dara def dara la ngay bàyyi nag yàlla doon loo xamante nii lu lay xañ aw yiw na doon loo xamante nii ngërëmal yàlla rek nga fay jëlee te yaakaar naa ne daayira yi ni mu ni mu tëddee association yi ni mu tëddee kenn ku ne war am benn plaque d'immatriculation boo xam dañ la xàmmee ci benn mbooloo mhm. dañ la xàmmee ci mbooloo moo xam ne dañ ne ak ah, mi ngi ci daayirëb Sëñ wala mi ngi ci daayirëb El Hadj Malick wala mi ngi ci association sangam mi ngi association sangam ñu mën laa dénominer parce que tam fraction bu ne da am dénominateur loolu mooy mooy soññe bi ñu ñu ñu bàyyi xel ci dimbalante daal jaadu na ndax jamono ji moom ni ko sëñ Pa Moxtaar waxee tubaab moom bari ni singulièrement wuñ sax état bi par par entité ngay dégg ben état wala ben société mais personnellement ni ñu koy défé ñun nga xamni ñi ngi contribuer ci lolu tuba tubaab dafa buñ ko te yaakaar naa ne buñ ci juggé dinañ am benen xoolin bu ñuy xoolewaat bu dul rek les immigrés les immigrés. Mm-hmm. waaw baax na sëñ Pape kon xam naa. jërëjëf jërëjëf xalaat bi rafet na maanaam li tax ñu koy wax sëñ Ablaye. mooy xam nga maanaam bu ku nekk toogee sa kër rek euh, daanaka dañuy dund benn esprit boo xam ni donte jamono ji euh, xel yi jaxasoo na lool waaye it war nañoo xalaatat na ci suñu biir ndax ñun yàlla dafa def euh, ay julit lañu ba pare doon une communauté sénégalaise ñun ñëpp ñoo bokk pas-pas bu ñu indi fii pas boobu daanaka fu ñu nekk rek dañ koy dañ koy wéyal. Euh, euh, euh, ñu baaxoo woon eh, eh, eh, bu ñu dajee ci mbooloo yi léeg-léeg yow xam nga ci dara léeg-léeg lu mbooloo rey rëy dinañ laaj foofu ay ndimbal lu ñuy dimbalee nit ñi ndax fii moom daanaka ni ñu fi nekkee mën naa ni ati mujj yëpp ñun man damay fàttaliku fii ñun suñu dëkk bi fukki at ci ginnaaw xeetu ay ay ay ay ay ay ay murum koor xeetu ndimbal yi daanaka daanuñu ko woon. jëriñoo fi dañ ko dañ daan yónnee yëpp senegal ndax euh, euh, eh, eh, société bi dafa doon dox dox boo xam ni boo ko joxoon nit sax mu delloo la ko waaye léegi toog nañ ci jamono joo xam ni euh, bu waxtu séddoo ndimbal jotee nit ñi bu ñu toogee da ngay am problème noo koy séddalee ndax ñoo xam ni ci loolu lañuy yaakaar xëy na pour lijjanti benn mbir ñooñu bu ñu toogee amatul lenn lu xew ci dëkk yi. Euh, euh, doo leen gis ñu yëngu ndax am nañ am na moo xam am na mag ñoo xam ni dañ fee nekk yàlla nattu leen mënatuñu dellu te it fii mënatuñ fee yëngu ndax bari na at yoo xam ni boo ko tolloo mooy ñoo ñu may wax nga xam ni da ngay da gis mag mu toog ci benn benn buntu supermercato teg fa as njaayam mu wóor la ni kii daanaka euh, li ko nit ñi di dimbalee rek ci lay dundee waaye waaye waaye du nekkatul daanaka. kuy jël ay marchandises di liggéey nga gis nit ñoo xam ni daanaka ci parking yi la ñu nekk parce que tam c'est des réalités que nous vivons euh, euh, day jaadu aussi ñu fàttaliwaat suñu bopp euh, euh, euh, sunu suñu diggante ñun li ñuy dund solidarité boo xam ni maanaam mooy tax ñu ñu gëm ni sax tubaab yi ñu nekkal am na lu ñu leen tanee ci wàllu pas-pas ba ba ba sax yow nga nga war a mën a nekk impaché intérieurementé defe naa ni loolu lu lu mat a bàyyi xel la beneen bi mujj defe naa ni mënuñ surtout tëj tey jii te te waxtaanuñu tam situation bii nga xam ni moo xew Sénégal ndax Sénégal gis ngeen daanaka semaine bi on est passé presque de onze à seize cas ba daanaka léegi ñu ngi ñu ngi dugg soixante dix cas mu mel ni euh, euh, li xew foofu euh, xëy na Sénégalais yi nu ñuy dundee parce que tàmbali bi lu luñ doon wax am naag amul léegi kenn waxatul loolu. Euh, li ñuy wax mooy euh, bés bu jot li ñu daal fii Italie ñaata lañ toll te mu mel ni cas yi day yokk xëy na ñu nit ñu am ci responsabilité boo xam ni comme li ñuy wax rek tout immigré est porteur de voix ndax it am na lu ñuy dund fii am na ay réalité yu ñu xam yoo xam ni warees naa mën a joxe suñu contribution ci Sénégal joxe ko ci taxawaay ak it ci ci tolluwaay bu Sénégal toll boo xam ni war nañu wax ci man de dama koy def temps yëpp léeg-léeg damay toog. Euh, mënatuma rek ma génn def ay foogo ci <laughs> Facebook bi ma euh, léeg-léeg sax gars yi duñu ma xàmmee ndax damay toog daanaka gis ni ñun Sénégal dafa mel ni dunduñu sax duñu yoruñu maanaam euh, network di seetaan par exemple tijji Italie en direct war ko mun a xool ba xam lu xew fii Italie wala lu xew France mais dañu yore un autre monde nit ñi nekk ci seen i yitte waaye it suñu gouvernement nekk ci seen i ñoom ay dispositif ndax boo xoolee daanaka. Euh, euh, euh, suñu gouvernement fi mu ne nii bi yëf yi xewee un milliard cote la ñu génne waaw un milliard nga xam ni un milliard tey jii bu ñu ko doon jëndee masque rek du doy pour sénégalais yi di def ay services yoo xam ni lu mel ni confinement di tere nit ñi ndaje ñëpp xam réalité Sénégal ndax tey jii li ma gën a metti maa ngi gis benn luuma bu ñu tas ci benn dëkk àll bi nga xam ni. daanaka àll bi euh, semaine ba semaine la ñuy am revenu tey jii damay joxe exemple fu mel ni Kébémer nga xam ni ñoom seen marché Talla altine da ngay gis dëkk yëpp dañuy daje foofu euh, bu bu loolu tasee ba nit ñi delluwaat seen village altine boobu la ñuy mën a amaat revenu ñooñu tey jii boo leen tasloo marché bi te amuñu lu ñuy dundee ñoom lu ñuy dundee ñun Sénégal am nañ ay réalité yoo xam ni gouvernement bi xëy na dafa mel ni. des na am contact ak sunu sunu sunu population ak réalité yi ñu dund parce que tay ji bu ñu commencé di les nit ñi ci carapiti di leen wax wàcc leen te nit ñi loolu lañu am pour moyen wala bok nit ki nga xam ni denc ñaari fanu dépense nga ne ko sa kër loolu lu la gëm ni kon ñun ñi war nañu xëy na joxewaat beneen euh, beneen beneen façon communiquer ak beneen façon euh, information sunu réew ba xëy Euh, ñi ñu war a mën a waxal ci suñu njaboot ñu wax ak ñoom waaye it suñu ay autorité ñu xamal leen tamit ni leen ni wax nii ngeen di demee mel na ni du yoon wa sëñ Ablaye. ah sëñ Ba dugg nga dugg nga fu sensible nag lu doon marché marché Kébémer rek kër kër Ibrahima Yacine ca yoonu tuubaat ñoom alarba alarba ba alarba la ñoom <laughs> te mooy seen source de revenu. Mhm. Euh, soxna si nga xam ne ndeysaan dafa yor boolub caafam. té lu ci génn mu doga jaar ci bitik ba jënd fa li bëru ceeb nangam ci nangam yobbu ci kër gi koku boko ko ne toogal ci kër gi amu loko loo jox dana doy c'est-à-dire euh, réalité bi am fi ak réalité ba nekk fële dafa bokkut bokkuñu c'est-à-dire tay dafa melni suñu autorité yi dafa melni ñom dañoo yaro fenen wala ñu mag fenen fu Sénégal té ñe fa nekk di gouvernement actuel ni ñom ñepp ci ceebi keccax lañ bunyore. bu ñu kon xam nañ dafa nekk c'est-à-dire xanaa kay gëmmu gëmmulu ak tubaab tubaab loo fa nekk waaye xam nañ lan mooy réalité Sénégal. Mm-hmm. tey jii ñu jug ni par exemple euh, jumaa sàngam jumaa ji nañ ko tëj li li li li kilifa yu baax yi doon wax waaw fu ñuy ñaane yàlla suñ borom lañ koy ñaane kër yàlla kër yàlla miy faj miy faj bunt buñ tëjee bunt bi fo fooy jaar ba gis ba gis ndawal yàlla mbaa nga gis yàlla cest dire am na loo xam ni dañ ko c'est-à-dire progressivement lay doon mais du noonu radicalement ndànk ndànk ñu habitué ko ba gis lee réalité ak loo xamante ni ñoom xam nañ ni parce que dimbalu population yi nañ xam ne Sénégal dundalun population bi mhm. gouvernement Sénégal dundalu population bi population mooy démerdé wu kenn ku ci nekk liñ naan euh, kii maanaam ay secteur informel kenn ku nekk la ngay jaay kii ab mouchoir kii ak gros kii jaay caaf kii jaay nangam lañ am loola la ñuy dund mais Sénégal par exemple boo fa xoolee ñu nekk gouvernement di fay ñaata lañ par rapport à la population kon boo leen bëggee limiter te tegoo dara ci seen loxo daanaka mooy da leen di rey ñun nañuy dundee pap kër goo ci dugg kenn nit mooy liggéey gàddu fukki nit ak ñeent kooku boo ko toogloo mooy rey nga fukki nit ak juróom mhm. mooy li par exemple gis nga li wax nii crise bii nii ñu toll nii Italie te majeure partie revenu yi Sénégal di dunde muy jóge ci extérieur moo xam Italie la moo xam Espagne la moo xam France wala États-Unis confinement bii ñu teg nii xam ne deux semaines rek la mais weer yi ñu jëm day am ay répercussions sur les dépenses du Sénégal mhm. parce que ni nga ko doon waxee mais Modou bi mooy faj waa këram Modou bi mooy dundal waa këram Modou mooy jënd les frais scolaires waa këram. Mhm. état bi joxu ko benn subvention état bi dimbalewu ko dara. ana lan la état di def Sénégal ci loo xamante ni day jëm ci famille. bourse familiale bi ñuy wax ñan ñan ñoo ko est ce que mas nga dégg ko ko bénéficié kan moo ko am. gisuma ko am na loo xam ni euh, c'est des yooyu bu ne moo baax ci feebar bi aussi mais day yokk feebar. Mhm. te yokk feebar ndax moyen de transport bi nga wax amu fa état bi est-ce que assuré na à cent pour cent moyen de transport boo xam ne tey jii dañ naan quatorze places la quatorze places rek lay def ñoom ci seen bopp ñooy njëkk ñooy ñooy njëkk a jalgati luwaay parce que da leen di leer bi car bi fees na yow jëlal car bu jógee Dakar wutali Pikine est-ce que dañuy respecter le nombre de de mm-hmm. ñaata nit ñi taxaw ñooy ëpp fopp ñiy toog. Mm-hmm. auto bu jugee c'est-à-dire non noonu la massa mel non la mel car il nonu taxi nonu noonu. Mhm. clando nonu mhm. légui dem nga ba par exemple auto yi nga xamanteni Modi yi dañ ci daan dimbalé Sénégal nga acc e, état état auto bi teew fi da nga fi yor auto bo xamni yalla yàlla xam na ni day def 15 ans dem gën fee auto bo xamni dañ ni 2 ans la wala 3 ans la ndax fi am nañu norme dang ko réviser dang ko dang ko vider da nga def olaaw bi chaque année da nga. c'est-à-dire mën pneu toujours tey ba mais fee demal da ngay dugg ci oto di seen tëli wala nga dugg ci oto boo xam ne bu fii bu waree frein taxawee fële maanaam à à un kilomètre lay tàmbalee freiné mm-hmm. wala muy pëlie pëlie boo xamante ni te état foofu amul usine buy defar oto boo xamante ni wala dina defar moyen de transport boo xamante ni dina dina dina wàññi wàññi surcharge yi ci bi léegi la nga xëy te waroon a liggéey nga wàcce ko oto bi amul oto personnel parce que lu ba léegi luxe la fa maanaam am auto personnel foofu du fa lu lu xam ne lu nécessaire loo xam ne da koy liggéey ab luxe la ba tax na ku yor auto léegi ñu yaakaar ni yor nga lu dul jeex cest à état bu tollee foofu nga xam ni mënta souvenir à ses besoins te daa am beneen comportement de rapprochement bu mu war a def vis-à-vis de sa population. ministre kii comment dire ki ki nga xam ni ki nga xam ni moo yor OMS. Euh, ba démb mais def na fi annonce boo xam ne xaw ma président africain yi dégg nañ ko mu mais nee na Afrique il faut s'attendre au pire là. il faut s'attendre au pire la wax démb. Hmm. te tey jii déggoo benn njiitu africain wala benn euh, représentant africain boo xam ni loolu laaj laaj na ko wala formellement laaj na ko ni ko. lan mooy les prévisions wala lan ngeen di xaar ci ñun wala lu lan moo nar a xew ci ñun c'est-à-dire amul demande mais africain yi président africain yi dafa jaadu woon sax ñu def benn sommet boo xam ni sommet de crise créer benn comité de crise jaadu woon na ah jaadu woon na parce que mieux vaut prévenir que moo gën faju mais nun sëñ bi xam nga li Sénégal li ma neex ci affaire bi mooy dañoo gëmut affaire loolu mooy <laughs> li ci ñoom dañoo gëmut feebar bi surtout valtare ko ndax mais ñun Italie ñuy dund boletino protection civile yi nga xam ni euh, journal vingt heures bi bu koy joxe kenn ku ne da ngay da ngay dar say nopp mm-hmm. mais Sénégal boo toogee non no non euh, fii fii sëñ be fi nekk mais sëñ bee nekk fépp mm-hmm. Italie gi sëñ sëñ bee ngi fi mm-hmm. ndax ñun moom la ñuy dund waaye teewut bi ne ñu toog leen ci kër ñun dañoo toog ci kër yi jàpp suñu jàmbur waaw ndax dafa am loo xam ni boo ko manee yàlla du fi wàcc di la ko defal malayka yi duñ fi wàcc di la ko defal yi sëñ bi du wàcc di la ko fi defal mm-hmm. xisa si ma lay jox mooy ka jugoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam yorug giléem dikk nuyoo yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ni ko da nga du takk sa giléem mu ni ko bàyyi naa ko ak yàlla ak yonent mu ni ko déedéet da nga koy takk doog ko bàyyi ak yoon yàlla ak yonent ak yonentam mm-hmm. donc mesure de prévention yi aussi mais Sénégal nañ ci baye xel ka xamni fièvre bi lepp la laal mais nak da ngay def li nga xamanteni ni moo nekk ci yalla moy li nga man ba nopi in tansurullah mm-hmm. yansurukum ba pare nak yalla do ko ñëw né né ñuy jaxaso ak ñun ci nuyu mourid sëñ bi mënuma gis papa demba te nuyu woo ko sama néew si jotal ko papa dem man ta yorup na ay kaasu café nanti ci ba te neewuma ma ko alo ma ji ma ji ma barkeelu ci sa jëm donc euh, ma di ma suwaana ia lhe fa dugg mais bu du duba, du sembi. Gouvernement bi gouvernement bi à la légère la ko jël gouvernement bi bo gisé sen communication si bi amuñu ben charme vraiment yow da nga naan ñin jiite dal vraiment abay xeyna loolu la mérité aussi la population tam non la mel parce que <laughs> tam population mom du gagner lu rek manam du am lu rek ki mérité ki mérité donc loolu lepp war nañ ci bàyyi xel bu baax ba te xam dal nañ euh, bàyyi xel population bi nga xam ne lu ci bari ay analphabète lañ ay illettré lañ hmm. mesures yi ñuy joxe ñëpp xamuñu dara hmm. xamuñu nuñ koy appliquer kon accompagnement la laaj ak ay sensibilisation parce que hmm. am na foo xam ne bu fa yeggee rek day daal di jéggi dayoo waaye nag ñu ñaan gën a ñaan rek ginnaaw ñun moom ay jullit lañ te ñaan mooy nga naayu jullit balaa bi moom sëñ bi italiens yi nga xam ni c'est des experts en médecine jaaxal na leen monde bépp affaire bi jaaxal na te li ci gën a yéeme gis nga ñaata médecin la rey fii en Italie. Mm-hmm. Mm-hmm. rawatina kon suñ pays africain yi nga xam ne ku masaan feebar fii ngay fajoo si. Mm-hmm. Euh, recteur euh, ci hôpital principal de xam ni bokk na ci hôpital yi nga xam ne moo gën ci ci Sénégal ba mu fa wéree dañ ko yanu dañ ko yanu yóbbu ma nag malade yam mbàyyi ginnaaw ni ñu war a def loolu de loolu de mooy mooy moo moo moo signé défaitu Sénégal en matière de santé c'est ça c'est ça il faut l'avouer euh, suñu kilifa yëpp daanaka à l'extérieur la ñuy faatoo dakk na tey waaw waaw waaw dakk na de waaw ñun a mm-hmm. tey ku ca feebar foofa ngay fajoo mm-hmm, mm-hmm, loolu dakk na tey mais pour jokk rek ci li Baye Ablaye doon wax léegi ni manam stratégie biñu utiliser mom mom mos moos wu parce que euh, mbir du ne këtt ne jonn rek nga jékki-jékki rek ni ni ni euh, tek mesure rek ne na lépp taxaw Sénégal fonctionnaire yi fa nek dama du may bañ de mais état fayul 300000 fonctionnaires état koñ bo dugg di nga wër fukki koñ ak juroom ñaar do fa gis ben fonctionnaire di nga mhm. wër digënté banlieue gem ba touba di nga wër fukki koñ ak juroom ñaar do fa gis ben fonctionnaire mhm. kan ngay gis modou modou bi kan ngay gis secteur informel borom boutique bi kan ngay gis menuisier bi kan ngay gis jaaykatu këriñ bi maire bi maire bi jaay légume ci ci angle maire bi jaay légume bi ak borom tontine bi borom nakt bi nga xamanteni dimasam la am pour wote mhm. <laughs> waaye léegi boo bëggee soo bëggee ah kay ci la bokk <laughs> ci la bokk léegi boo bëggee nga jékki-jékki rek. bëgg a moo tax neel soxna yi neel ah. soxna yi ñu bàyyi neel soxna yi nañ bàyyi natt yeeg daje yi natt yi moom nañ ko bàyyi. dëgg la <laughs> ah, bu doon bu doon bu doon buñ ko teggee def ko am farata waaye ginnaaw dañ koy yebbee ko kii rek moom day doy war. te Ablaye xëy na léegi waaye natt natt yooyu am na histoire. paasal nañ ci hmm. immigré. fayal nañ ci bourse jox nañ ci bourse ay ay diplôme yu bari buñ la waxee fuñ jaar natt ah. yooyu leen fa jaar ah, waaw suñu ya suñu sunu waajur yi mënuñu leen a fay ci loolu dëgg la waaw xam nga ngay gis ngay gis kër kër yoo xam ni réalité yi ñu dund ñun ñu xam nañ ko mhm. xam nga nga gestu gis góorgóorlu bi muy rey boppam suba ba ngoon ngir lu mu indi kër ga xam nga kooku xaarul état waaw léegi bu état jékki-jékkee rek taxawal lépp euh, man je pense que dañu dañu xaw a faussé tuuti stratégie bi parce que il fallait que nga commencé yow déjà nga étudier à partir de li xew Europe le virus naka lay propagé woo ci biir nit ñi nit ñi ñoo koy yóbbu ok fan lañu ñu xool gis ni vraiment am na euh, foyer la fokolaayo la gis nañ ni am na Touba gis nañ ni am na Almadi alors il faut que nga euh, réduire les euh, mezzi publici yi nga xamante ni mooy bus yi mooy yeneen ak yeneen yi nga xam ne dañuy jógee ay côté yooyu ak euh, jéem a contenir euh, foyer yooyu mais boo jékki-jékkee nga tëj lépp waaw léegi te yow booba ba koy tëj booba juróomi kaa nga am juróom xaw ma xaw ma fukki ka alors boo demee ba àgg ci mille kaa ñaanuñu ko yàlla yàlla na fi yem nag dëgg-dëgg ndax am naa yaxin ni Euh, su kaa yi baree Sénégal dana indi jafe-jafe loolu. te ku xam kaa importé moom mënatuñ ko wax ndax tëj nañ frontière yi. mais mënatuñu ko wax léegi nag su ko defee nag sëñ Pape. Euh, euh, made in Italy moom sëñ Ablaye ku ñu ko wax. no dañ koy bañ. dañ koy <laughs> dañ bañ waaye loolu loolu non caaxaan man bu continuer nii damay yóbbu ci yoon yóbbu ci yoon Diouf Sarr ni ko nag. di nga ñu wax fan nga jëlee ka importé waaw. dëgg dëgg en tout cas la ko def de a woy de la ko def. non cas importé dafa yéeme sëñ bi man daf ma métti. suma ma ko gisee nag. démb ah, ma gis ko parce que damay ree mais c' est une ah, forme de discrimination une forme de discrimination loolu parce que tey jii waa Sénégal sax dañ lay wax dañ lay wax ne la. c'est c'est waa sé waa Sénégal sax dañ lay wax ne la yii yéen kay bee boo ngeen toog foofu rek ñun demuñu demuñu. français bobu indi ko fi xana dañ koy faté seigne Ablaye ngi koy fàttaliku sànq ah eh, Italie ñoom it toll ñu ci wax naan ay ka importé wala nangam ak nangam tay ji biñu démé ba sonn même buñ ko daan wax chinois yi ñom ñoo ñew di leen dimbali tey. maaleykum salaam mel na ni am nañ gan salaamaaleykum. ah seigne dañ def ay ñi ngi sant baax seigne bi noo tudd. ak sa Abdou Ndiaye Abdou Ndiaye Touba toscana way fi te jamono ngi Sénégal ah seigne Abdou na nga def ay fan ci Touba Mangi ma ngi Firenze. ah Firenze seigne seigne seigne bismillah seigne Abdou. na ngeen def. ñu ngi sant bu sant bu baax seigne jay ma ngi sant bu baax te rafa émission bi. alhamdulilah. te di ngeen di waxal ni ngeen di wax lepp deug la. ndax comme ni ngeen ko dundee yéen. non lañ ko dundé am ndax bu lu tolni ab sous-préfet bu démé bay wax kaddu yo xamni manam xale bu ndaw sax waru ko wax. Mhm. mel ni séparation dafa am ci diggante immigré ak ak ak ku dul immigré ñun ñëpp ay sénégalais lañ war a ñëw suñu réew ñëw suñu réew ñu mel ni daal dañuy daw. non bul ne mu mel ni dañuy daw. léegi moom dañuy daw mu ngoog di wax ay wax yu yu juuna tey dégg naa benn émission bu seen mbokk moom moomu doon def ci benn télé Aliou Ndiaye xam ngeen ko moom itam. mu doon wax naan maanaam dem na ba am na benn waay boo xam ne bii dafa dem ci banque bi mu ci banque bi di di kii sax benn waay de kii am moodu moodu la ba ba moom bu du doon gendarme yi gaaw a def intervention maanaam euh, euh, problème de la femme. waaw ndax euh, dañoo commencé di ko naan kii nangam immigré la daan nangam fii la jógee faa la jógee nangam nangam. xam nga di wax yoo xam ni daal moom daal rafetluñ ko kenn rafetloo ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ba tax na daal moom daal communication bi daal des na lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri. dëgg la dëgg la. ginnaaw bu loolu jàllee man amoon naa benn laaj bu ndax bu ma bëggoon laaj it son laaj boobu. Mm-hmm. comme jamono yi moom dama ñëwoon vacances euh, mais xam naa li li gaar ñëpp gaar nañ ma parce que man maa ngi waroon a am retour euh, euh, fin de mois mais defoon naa confirmation foofu léegi xam naa ne moom ñu ngi ci waxati aéroport yëpp tëj nañ ko comme fii ak Europe ak ken dematul kenn dikkatul. Mm-hmm. léegi man sama damay liggéey mais ay le deux laa waroon a jëlaat liggéey mais ban solution laal laa war laa def dama war a. wo tabi wala ɗum wara binde ben lettre recommandé wala dal nan la wara def dal pour manam manam li nga wara def hmm. uh-huh. bu sa bu sa férié jeexee uh-huh. li nga wara def moy défaral malatia yoneko ko yónnee ko ims hmm. ah malatia malatia avant tout hmm. waaw waaw nga jël nga jël uh-huh. nga jël nga jël certificat médical bi sa yu ba ba ba ba frontière yi saa yu malaatiya bi jeexee demaatal ci docteur mu def ko nga yóbbu ko ambassade ñu légal ñu traduire ko. d'accord ambassade bu. Euh, def fa nag adresse bi nga dëkk ci Sénégal nay leer ak numéro ah. téléphone. ak numéro téléphone. waaw bés boo ko defee boo ñëwee. Mhm. kenn duna topp ci lenn. Mhm. Mm. waaye nag boo tëddee donte njaay nga sant bëgg def yu fi jóobeen wala seer moom da ngay am <laughs> yaa tax yaa ngi may yaa ngi yaa ngi may si yabla jub benn parenthèse boobu bu ma kéere waaye xam nga xam nga léeg-léeg nga gis ko fekk seer bu yor ñetti soxna day bi ana ah, faf toog rek <laughs> kaw su kaw su kaw su kaw su da ngay fagar da ngay fagar ah, ah. wut sa ay ay cislaay ay këyit yoo xam ni ndax nag donte ñi ngi ci période de crise boo xam ni période de crise bu hmm. ñëpp reconnaître nañ ko waaye ñoom it dañuy wut ay ndëng sërëx yoo xam ni dañ koy def pour bañ a fay. waaw dañ waaw loolu loolu moom am na moom dëgg la dëgg yow nag boo gànnaayoo say këyit. Hmm. ah defe naa duñ la war a mën a jam de ah sëñ sëñ pap waaw noonu nga ko waxee noonu la moom na def malatia pour que mu am sax au moins copertura Mm-hmm. à part que ah. même say férié bu jeexee sax yow boo egsee boo euh, ñëwagul nga toog foofu parce que te nañ frontière yi ba léegi dita bi amul droit dàq la ah, ah, waaw euh, euh, décret décret Italia bi ak bi ko jiitu yëpp def nañ ci que ni gouvernement bu ñuy licenziare benn lavoratore per causa Covid 19. yëpp doo xamante ni causale Covid 19 la malatia bi moom moo koy couvrir. Eh, d' accord d' accord mais maladie gars daal obligatoire la daal il faut nga euh, def ko daal comme ni ngeen ko waxee daal. dafa dafa gën a wóor moom moo gën a wóor waaw moom moo gën a wóor waaw. voilà non seulement yow di nga wax xamal dita bi ne leen yow da nga wopp mm-hmm. benn mm-hmm. ñaareel bi di nga mm-hmm. wax IMS ne ko IMS yow it da ngaa wopp donc IMS dina la jox benn couverture économique boo xamante ni au moins daañu la fay. d'accord d'accord d' su ko defé nga man ci bàyyi def sa numéro téléphone sa adresse fi Sénégal. ak eh, manam ben ben ben ben ben casa de comme adresse euh ambassade Italie wala ambassade Sénégal parce que man déjà fi ma nek amna carte bi mais nationalité bi mom yoraguma ko. non boko mené jox eh, bo mené mënee ak ñom Ablay wala ñom eh, gaay yi traduire foofu. ñom ñu défaral la ko nga teel ko yónnee. waaw d' accord amul problème naa ci def danaa ci danaa ci taxaw seetlu am waaw pour le moment nag. Mhm. maanaam bul xaar ñu ñu légaliser ko pour nga yónnee ko. traduire ko en ah, italien avant tout. yónnee ko ba pare. Mm, mm, mm. traduire ko rek yónnee ko en attendant sooy ñëw nga doog indaale nag yu ñu légaliser. voilà d' xam nga mën nga dem ambassade déjà tëj na amuñu amuñu. amuñu waaw waaw waaw lépp tëj na waaw tuuti cuuso waaw li ñuy wax lépp. tëj na waaw yow traduire ko en italien yónnee ko. Mm-hmm. waaw te nga xam ni mutuwa nga nekk nag bul génn dégg mm-hmm. <laughs> parce que kenn kenn bëgg laa wax ne la nga dem euh, Aspettativa parce que Aspettativa poste gi fi euh, mm-hmm. euh, te comme xamuloo kañ la lii di décanté wu waaw kenn instrument boobu lañ lay jox pour nga def ko au moins IMSS mën la reconnaître dara quoi Mhm. d'accord comme émission bi daa am solo te yéen seen i wax bi ëpp solo sama wax ah, mhm. li la li la gars yi wax nag bul biddanti suba ba topp ndekki li nga ba a boo xëyee suba ci altine wutal ab docteur <laughs> ah, man ci docteur mu signalal loolu maanaam maanaam boo demee waaw <laughs> xam docteur du Sénégal xam nañ da situation de crise bi dañ ma wax ni ma. def repos médical. waaw repos médical. moom ñoom xam nañ repos médical su mhm. am yenn pour defaral la ko problème. Euh, ni comme ni bu doon Diop moom mu ne dafa xaw a dafa xaw a am coono ndax dafa daa xewlu lu ëpp euh, kii ko waaye moom ñoom xam nañ ni koy defee. Hmm? waaw d' accord d' accord bu ma leen ko expliqué rek <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mel mel na mel na ni xaabaabal nañ nag waaye waaye nag moom waxtu yi moom daanaka mëneesut a bañ a bañ a bañ bañ a bañ kii ndax léeg-léeg euh, li ñuy wax rek. Hmm, Eh, exigence bi moo koy laaj ndax li ñuy li ñuy li ñuy développé mooy mooy xóot ba nga xam ni léeg-léeg ndeysaan li duuf yëpp du xaj ci nag bi donte gis nga ñi ngi tàmbale woon sax ci ci wàllu Sénégal euh, ndax xëy waxtaan nañ nañ ci si wàllu euh, xëy na garantie yeeg yooyu waaye ci norme ket yeeg yooyu xëy na organisation yeeg yan xalaat lañu ñu war a def ak it nu ñuy def ba moytu mu ne su ko wax dañ hmm. koy dàqaat ba ci beneen kàddu rek Euh, sëñ Ablaye hmm. euh, sëñ Pape dama lay jox nga nga nga tëj. Eh, donc sëñ Ablaye kay moom mooy moom mooy tëj après. non non laay jox mu ñaan sëñ Ablaye kay. Ah, léegi <laughs> naa la jox nga nga nga nga nga nga joxe sa kàddu yi mujj ñu ma ma ma ma jox sëñ Ablaye mu tëj. waaw waaw ci gàttal rek euh, di remercier bu baax wax dëgg yàlla suñ mbokk auditeurs yi ñu doon déglu yëpp. Eh, di di di len eh, ñaanal ñom ñep di len wax nañ ñu ñaanalit yalla sammu ñu eh, ba li nga xamanteni mo fi nek dégg rek doy ñu ci di len sak di sakku ci ñomit wax dëgg yalla ñu observer norme yi nga xamanteni mom lañ ñu jox ñu tok ci kër yi ñi nek cas intégration nañ tok ci kër yi ñi nduggi na kenn rek dem Eh, ku ko menit loo mën a ndugg ci solidarité nga yobbu ko waxtaan ak keur euh daayira yi fi nek muy keur seigne Touba yek yenen keur yi fi yeb euh ñu jappalé ko ñi nga xamanteni ni mbokk yi nga am ni seen loxo jotut seen ginnaw wala ñu nek ci ay jafé jafé koku appel la bu ñuy def vraiment ci solidarité eh, xana di gattal rek di gërëm ñëpp di bu baax ci wax ji bu dé amna lén lu ci diis suñu matadi la jox ñëpp dox da dox daje rek beneen dimanche incha allah ak euh, yeneen yi waxtaan ci kàttanu yàlla jërëjëf. jërëjëf sëñ Pape Makhtar ñu ngi ziar bu baax di jégalu nag bu baax euh, Baye Fall ndax moom waxtu yi moom bari na lu ñuy xaabaabal waaye mëneesut a ñàkk ndax daanaka moom li ñuy wax rek temps yi moom comme bés yëpp dimanche la ci ñun daanaka dañuy mooy mooy waral ñu ñu ñuy xaabaabal noo ngi ziar bu baax euh, sëñ Cheikh Fall ndeysaan defe naa ni. Moy coordinatore MSEC bu Bologna euh, ak Ferrara, Ferrara Italia mi ngi wax ni mi ngi ñuy xel di ziar mbokk yi nga xamni ni Baro bu Milan mbokk yi nga xamni danaka daanaka ñun ak ñom toujours ñoy and ak émission bi euh, sëñ sëñ Bala may si càmm ngi lay ziar ndaysan momit mi ngi mi ngi mi ngi sakku ñaan di wax seen bor yoy bagage yi yaatu na may ziar sama soxna yi nga xamni ñom la fétel fi Toscana ndaysan soxna Maguette Mboub soxna Ndéla Dieng euh, mbokki taalibe yi nga xam ni daanaka ñun ñoom ñooy ànd chaque fois rek di di di di di di bokk émission bi waaye ni ko Pape Makhtar waxee rek euh, toll nañ ci jamono joo xam ni euh, laayante biir mënut a ñàkk ñuy ñu ñu ñu ñu leen di fàttali di fàttali suñu bopp ni leen alal jarul dara jamono ji Euh, bakkan ak alal boo xoolee euh, temps yi vidéo yi ñuy wane ci Facebook yi ñu lay wax ay borom barke yu tëdd euh, ndax virus bi moom amul ndeysaan virus bu dee deewaar la amul taamu fi mu ne nii ñëpp lay jàpp borom xaalis yeeg amul couleur ak amul dara foo kon neex lay dugg nga gis ñu lay wax diw diw mii kat moo tëdd ñu ñu tegal ko ay ay machine ci bopp bi mënut a def dara kooku tey jii boo ko doon wax ni ko. joxe li nga am yëpp ci alal ngir jóg mu def ko euh, ña ñu teg ci kees yi di leen yóbbu ñooñu tey jii bu ñu leen euh, laajoon la ñu yor yëpp ñu joxe ko euh, yaakaar naa ni une semaine wala weer wu ñu lay tëddloo sa kër ni la toogal ka koy wax bañu la sa jàmm la la bëggal nañ leen dellu siwaat ànd ak suñu xelu bopp tey déglu recommandation yi nga xam ni moom la état bi di joxe Euh, donte sunum réew jaxle am na fa ñu dellu siwaat di déglu fii information yi euh, di déglu recommandation yi waaye it euh, di bàyyi xel ci ni ñun ci com ci société bii lañu ñu bokk duñu ay extraterrestre ndax nag sénégalais yi moom yaakaar nañ ni ñun bokkuñu ci wala dund gi ñuy dund fii bindaluñ ñu ko da gis juróom yi dëkk ci kër donte léeg-léeg Hmm. ku ci nekk sa dépense bopp wala ñoo ñu euh, këru célibataire lañ ku nekk bëgg a génn lijjantil sa bopp say mbir jamono jii du du jamono yi maanaam tasaaroo jamono yi booloo la solidaire tey jii euh, maa ngi koy wax dëkk yi nañ leen seet ci biir kër yi ñu organiser waat def système militaire ka war a génn euh, ci semaine bi dem duggi kooku tey jii na def ci boppam ni moom moo yore responsabilité kër gi yëpp. buy génn li muy dugalaat ci kër gi moom moo koy dugalal ñëpp tey jii bu ñëpp génnee eh, siwaat ci kër gi nañu xam ni dugal nañu mill risques ci kër gi waaye bu kenn génnee benn risque moo am kon nañ leen di def analyse yooyu ki yor njaboot xam ni dafa am njaboot mu dem doxi farata dellusiwaat eh, ndax tey jii eh, lii xew nga xam ni kenn xamul fu muy jaar kenn xamul fu mu nekk kenn xamul nu mu mel da ngay jékki-jékki rek ñu ni la diw am na ko. lu jara moytu la nañ leen di set bu bu bu bu ki waree def dépense di génn ñu bind lu way soxla bindal ko jox bu ñëwee wat ñu toogaat ci biir kër gi euh, lolu dafa gëna dal xel nit ñi ñu mëna xamanté tay ji da ngay gis am kër yu ko commencé am bo leen xolé ci facebook yi am sax gaay yi ñu koy commencé di ko publier mu doon luma ñaawlu ndax nak privacy nit dañ ko war di denc démb barki démb barki bërki bo boo leen Mais bi li gëna li gëna photos. su déjà ñi ngi wara préserver privacy ñu photo tek ci biti ni diw mi euh, corona moko jëf ju ñaaw la jëf ju ñaaw la lo xamni tay ji ay mbokk rek nañu ci yoon euh, euh, al dolore ñi ngi amaat benen naxar kon nañ leen di bu yi ñi publier bu nit nañ nouvelle balaa nga koy eh, eh, répéter na nga balaa nga koy condividere seetal bu baax tay ji bu doon sa mbokk bu doon sa doom wala sa rak wala sa mag wala sa yaay est ce que ding ko def kon gaay nañ leen di set nek sa page facebook rek lu la neex nga génne eh, jaadul kon mbokk yi jamono ji dafa nek jamono ju doy war ñu seetaat bu baax ci wat yermande yermande bi aajo wul rek ci dimbali nit da fay aajo ci di layenti biir

déjà ni ñuy dundé bu ñu waré nek 24 heures sur 24 di supportanté dañu war di toléranté manam euh, nga xamni kat da ngay bayyi dara ngir fekk sa morom waaye nak bu fekkenté ni ku nek da ngay bëgg sa zone sa espace li nga bëgg def yépp nga def ko ci ah dëkk bi dina naxari loolu mooy waral léeg nga gis ci kër yi ku nekk sol sa casque euh, tal sa tal sa euh, son yokk ko ba mu sës pour bañ déglu problème yi Euh, waaye dañ dañuy gën a yokk problème yi jamono jii dafa nekk jamono joo xam ni bu ñu mënta dimbalante doog a ñaan suñu borom suñu borom du nangu du nangu suñu ay mbir ndax nag bu dee nag ka ngay tuubloo euh, ka ngay tuubal da nga koy ñaan dimbal da ngaa war a njëkk dimbali euh, ña nga dendal waaye boo boo mënta dimbali ba pare bëgg bëgg sàkku ndimbal defe naa dina jafe loolu beneen bi tam sama sama sama sama yitte bopp la maa koy ñaan suñu dëkk. damay ñaan suñu autorité yi ñu génn delluwaat euh, gën a jege sunu population bi ndax man dama gis dafa gën a feeñaat ci ci ci ci xew-xew bi benn alontanansa bu am entre suñu ay autorité suñu représentation politique yi moo xam parti bu mu mënti doon ñi nga xam ni ñooñu ñooñu ñooy ne ñooñu bëgg représenté ak ñooñu représenté benn distance bu am entre ñoom ak population bi boo seetee jamonoy élection bu jotee dañuy fëgg di dugg ci biir kër yi di fekk fekki fekki fekki euh, euh, population bi di leen nuyu di seet lu ñuy dundee di leen jox sax léeg-léeg di leen may ay yëf tey jii la la la askan bi gën a soxla ndimbal tey jii man yaakaar naa ni xeetu ay saabu xeetu dund ceeb yañ daan séddale ci ci ci élection yi tey jii la ko mbooloo mi gën a soxla dugg balaa ngay mën a wax nit ki mu toog danga ko war a gën a mën a jàppale. suñu président de la république gisatuñ ko dafa mel ni dafa dafa dafa bunkerisé wu dafay jaadu mu génn dem xool population bi dem xool hôpital yi nit ñi feebar donte mënu leen jege sax donte day sol combinaison boo xam ne dañuy gis ni kiikat kat moom la président génn na mu ngi seet dafay dalal xelu askan bi ndax nag askan bu tiit li mën a dalal seen xel mooy seen kilifa génn wan leen ni leen mën ak yéen a nekk. loolu rek la population bi soxla loolu mooy ndimbal loolu mooy solidarité ci biir mbooloo loolu boo amul rek solidarité mënul am ñun ñu tàmbali ko fii te nag sóor ëllëg ndax nag ëllëg dafa am après ñu ngi koy wax di ko waxaat gars yi nañ leen di yaxanal ndax nag dëkk bi li ñu jëm xamaguñ ko crise bi ñu jëm xamaguñu fu mu toll yéen a ngi gis euh, sociétés yi perte yi ñuy subir euh, dina dinañ ko subir ci sunu ay poos kon nag day jaadu ñu waajal yaxanal te te wax ko sunu mbokk yi nga xamni dañ leena tamalon lu yomb ñu yaxanal kon dal lolu rek lañ fi bëggoon participer tay di di jégalu nak lu ëpp lu lu lu dëng ci kàddu gi rek ñu euh euh, euh, euh euh doomu adamu matul waye lu ci rafet ñu xamni <coughs> ndimbalu sunu borom la di Santo bu baax Modou mbay cham bay Fall ak mbokk yi bokkoon ak ñun ñëpp émission bi di la sante sëñ di Santo Pape Mokhtar di ziar sëriñ Cheikh Mbacke mbub mi ngi ziar fan yi ndeysaan di yóbbante nuyoo eh, waa rajo bi yëpp di leen jox dox daje dimanche ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf jërëjëf sëñ Pape jërëjëf sëñ pap Mokhtar wax dëgg sëñ ngeen wax lépp lépp jub noonu dangu la eh, lépp ay ay ngëneel la waaye ay joxoñ la yoo xam ni benn bu ci nekk ko def yoo xam ni kenn dana ci jariñu ñu bañ a topp rek ni émission bi neex na mbaa waxtaan wi neex na kenn ku ne na ci jël jàngat boo xam ne dina mën a wéyal changer comportement am changer dundam surtout noonu nga xamante ni noonu la ko Pape Demba waxe kër yi xat na ñi ci dëkk nañu yenente jàmm man maa ngi ci doon soññi rek démb ak bërki démb ci léeg-léeg way yoo xam ne léeg-léeg sax dañuy am ay jamarloo ci jamono ji nga xam ne dañoo ko ñu kër yi tëj waaw ah, bu dee da ngeen a dëkk xuloo wala xeex di yaakaar na dëkk ni di gën a métti nañ bàyyi xel suñu borom mi nga xam ne di ko sëñ Pape waxee am na ñoo xamante ni jóge nañ fi buñ leen joxoon opportunité ni leen kaay leen dellu àdduna te jubóog ñi ngeen dëkkaloon te dund ñu nangoo ko ginnaaw ko nag noo ngi dunda di nañ ci bàyyi xel te rafetal ko te bàyyi xel suñu borom subhanahu wa taala ndax ña dem kat yaafus yóbbu leen ñun ñu fi toogit kat ngóor a ñu fi kon nag eh, digal suñu borom rek moo dikkut waaye yàlla na yàlla na yeex Eh, li ci des rek kon kàddu yi ñaan rek la benn bi ñu barkeeloo ko ci guddi gi nga xamante rek eh, isra wal mihraj la bismillahi rahmaani rahim subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al li nuuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir muy neex loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi la ko suñu borom bégale mu teg ko ci alburax mu ànd ak sayidna jibril amin ñu xotti asamaan si wutale suñ borom mu jox ko fa li nga xamni moy gën ci xam-xam di li nga xamni ne moo gën di ganjaru muy julli juróom ba mu wàcc ko ci am yépp ñoo ngi ci ziare tam wax dëgg waa kër Cheikh Momadou Fadel gépp nga xam ne tey ji lañ koy ñaanal moom itam ndax ci xoromam daana wax ni yonte bi sallallahu alayhi wasallam dañuy lay rek mënu cëpp ndax ñoo bokk génn guddi te loolu li koy mooy eh, si yonente bi Jibril di yéeg ci kaw asamaan nee na maa ngi dajeeg malayka moo xam ni eh, Seydina Jibril da ko laaj ni ko foo ji mën ne ko suñ boroom mooma mooma woo ci suuf xam ni kon ñoom dañoo jiyooloo kon nag loolu day méng méngaleeg noonu ko suñ suñ Fàllu waxe woon rek yonente bi dañu lay mën ni cëpp nga xam kon mënoo wax ni suñ boroom ci kaw rek la nekk non ñu nga dajeeg malayka moo xam ne ca kaw asamaan su la jógee di wëtali suuf te nee suñ boroom a ko woo yonente bi ànd ak Seydina Jibril jóge ci suuf di wëtali kaw ni suñ boroom ñoo leen woo loolu nag kon jar na bàyyi xel suñu borom moom nga xamante ni borom kattan la borom nam la te fa xaariñu maa yurit lay doxal lu ko neex lay def te kenn du ko laaj kon nag lii nga xam ne wàcc na ko ci kaw suuf daal ñoo ngi ñaan ci barke xasida gii ñuy bëgg a jàng suñu borom def ci tawféex ba nga xamante ni dana ko saafara saafaraal ko jullit ñëpp saafaraal ko waaye min def yëpp bismillahi rahmaani rahim allahu xayun samadun wa baaxi subhanahu zu kanafin wa waaxi wa nahnu fi kanfil mannihi min kulli charrin wazan samihi mustamsikina bil xiyaasi ahmada xayral anaami muntahad wa muntada man xaalaha fi zamanil wabaayi amanahu laahu min al balaayi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallam ñoo ngi leen di jox daje kon incha allah di béer ak yeneen émission yi nga xam ne rek ñu ngi ci biir Touba Monde bi di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni bëggoon nañoo woote te mënuñoo dugg ak ñi nga xamante ni ñu ngi teewlu te duñu wutee ni ko Cheikh Mbacke mu géwlu Xaadimu Rasuul di waxee ku ci mel ni Serigne Abdou Babou ku ci mel ni Serigne Alaaji Ndiaye waaye ku ci mel ni Serigne uh, Moustapha Sylla ca Touba Brescia waaye ñoo ngi ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di leen ñaanal tawfeex suñu borom yàlla suñu borom wàcc jàmm ci jullit ñi allahumma ixfir lii wal walidayya walil muminina wal muminat wal muslimina wal muslimat al ahyaai minhum innaaka mujibu da'waat bi jaay maam Cheikh Ibrahima Fall ba muridina barke Cheikh Mamadou Fadel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh